ñu laaj am ngeen wante juróomi baaraam yu kalal muy romb yelwaan njiit yaa ñu dajale fii ndax xam ngeen lu tax du tuus ngir mun a jot ci ndimbal lii tomb te léeg-léeg njiit yi ñuy sant ak di yërmande bu amul ab ci suñu tur ñun ñi fi nekk ñi fi nekkul jagleel ko ñi ñu jox ndimbal lii leen suñ ñi ni koo ci gis bu ñuy tëg ci layam layam suñ kanam di tàggu mais li ndimbal lii seen ñaxi bopp la xam ne amuñu kaddu amuñu fayda ñuy fekk ak di woy jagleel ko di bal bi soo ma ne léeg léeg ubbi suñu bët yi xool ak njogoo amul soosu teer waaye ko man ci télé mu jëm ak ci salaamaaleykum gars yi ziar na leen ko ci nekk seen ak sa sant euh, tey nag di dimanche nga xamante ni moom la ñuy décider léegi ci semaine bu ci nekk ñu waxtaan ci suñ ko mënee wala ci weer wu ne ñu waxtaan ci tànn benn dimanche waxtaan ci wala ñaari dimanche comme à chaque fois des fois ñàkk jot bi day am mais des fois nag actualité laaj ko ñu génn deux à trois fois ci li nga xamante ni. mom moy euh semaine bi mais lolou day tassante rek actualité am mu doon actualité mo xam dañu intéressé ñu bu nekk ba nga xam intéressé ñu ñoru ñu da daanaka duñ ci wax duñ ci am benn cadeau motax la plupart du temps dañuy bëgg vraiment mu doon actualité ba nga xam ne ni daf ñu ñoom te dafa doon actualité ba nga xam ne dafa concerné Sénégal concerné si li nga xam te moo ni développé loo loolu à génne amee rek mënuloo génn benn ba ñaari yoon ci semaine yi waye nañ jàpp ne loolu c'est rare tay nak luñu ñu ba tay dañuy def sur logique ci li nga xamni moy actualité bi nga xamni mo am c'est vrai que dem président génn waxtaan na man nongo may notel président bu do dama makoy notel dama ko notelee à 90% la dix pour koy notel dem ci sortie bu mu def ci ay question aussi ta bu may am satisfaction dama ko notel à 85% de satisfaction donc mu ne acceptable parce que l'heure est limée donc tay ñu fas yéene waxtaan ñu comprendre nag gars yi ne sama page bi dañ ko restreindre bu baax a baax a baax page bi dañ ko restreindre bu baax a baax buñ ko mënee partager liker dina ci baax parce que page dañ ko restreindre bu yàgg-yàgg parce que depuis ma génn ba léegi malheureusement maa ma maa ngi méta moom dafa mel ni ma leen singili ci page bi finalement sax damay tayal publier li nga xamante ni mooy restreindre bu ko restreindre mais j'ai besoin d'être qu'on le partage massivement j'ai besoin aussi tam mu def ci ay cœur parce que page dañ ko restreindre bu baax a baax a baax a baax en plus chaque jour passe, nous donne koy signaler tous les jours du ma toog signaler une page bi donc su ma nee partager page bi euh, def ci ay laaj dina ci parce que ce qu'on fait ëllëg ñu mën di déggante bu baax a baax a baax di ne page c'est depuis 2008 <laughs> mais comme naa ne moo tax sax mënaguñ koo tëj mais yàlla baax na tey nag ñu ci actualité Tout est la ñuy laaj sorti président bi parce que dama gis sénégalais yu bëri jamono ji ñuy attaqué ay doomu aadama rawatina ñun yi lu ñuy jël comme prétexte lu tax loolu mooy ay panafricanisme lan nangam nangam Sénégal nangam nangam hey les gars basta s'il te plaît nank méttiwul vous savez pourquoi méttiwul parce que donte yeneen dëkk Afrique yi am nañ problème mais nit ki faaw nga xam ni nga doon vous savez pourquoi ñëpp di wax ci Sénégal parce que Sénégal le locomotive Afrique rawatina Afrique de l'Ouest Sénégal mooy locomotive bu Afrique de l'Ouest ñu suñ ko comprendre noonu rek duñ am problème néna naa leen fii génn ay yoon yoon expliquer leen ko pourquoi et comment le Sénégal est devenu li nga xam te ni moom mooy locomotive Afrique bu njëkk ba sax sooy xool ci Sénégal bu njëkk ba sooy xool ci Sénégal moo nekkoon capitalu lu naan AOF Afrique occidentale française kon Sénégal dafa yàgg nekk locomotive Afrique booy xool bu ñuy jëlee li nga xam te ni mooy tirailleurs yi di leen jël di leen yóbbu li nga xam te mooy pour guerre de France on les appelle les travailleurs sénégalais ça veut dire quoi bu ñu doon jël jaam yi di Sénégalais yóbbu si Sénégal ñu à part de Gore. kon ça veut dire que Sénégal dafa yag nek locomotive Afrique kon Sénégal buñ bañé ñeneen ñu wax ci ñun dañuy nax suñu bop. par force nit ñi dañuy wax ci ñun dañuy jox sen avis parce que ñu pays ba nga xamni c'est sûr Afrique noire bi nga xamni fa la tàmbalee muy Afrique de nga xam fi la tàmbalee dëggantaan dëggantaan ñu ñoy locomotive bi et c'est sûr je l'ai déjà dit ici plusieurs fois si le Sénégal change forcément day impacter yeneen obligatoirement malgré sur territoire bu ndaw malgré population bu mais dama Sénégal inshallah, allahu rabi vous bu changer far force impacter Afrique obligatoirement kenn mun ci dara Afrique de l'Ouest raison pour laquelle les panafricains souvent dañuy gis Sénégal teg ko le Sénégal Sénégal mais espoir bu ñu am ci Sénégal la bëgg Sénégal changer locomotive bi nga c'est important ñu ci donc locomotive bi nga xam ne moom donc donc ngeen comprendre ne ñooñu foofu la dans l'histoire lépp lu tubaab doon def Sénégal la ko doon defee yóbbu jaam yi ñu administration lépp Sénégal la nekkoon kon donc Sénégal bu ndaw kon ñu il faut que ñu comprendre loolu koso <laughs> koso mon frère jaar naa la wér aussi tam ñu dugg ñëpp maa ci sa ak et tout donc kon il faut que ñun Sénégal ñu arrêter de critiquer les gens gis nga nit ñi gars critique ba mu ñëw ci c'est quelque chose de positif je dis bien c'est quelque chose de positif gis nga ki bo ragal critique rek day fekk amo xam-xam wala tegoo ko ci base bu liggéey bu légal ñun ragalun critique parce que on sait ce qu'on veut et fu mu bëgg dem xam nañ ko kon ragalum critique ku neex na critiquer c'est important mais aussi tamit ñoo ci critiquer dañoo am ci ñun yaakaar ndax nit ki ki nga bëgg rek. souvent mu ngay bëgg mu gën a parfait kon nañ jàpp ne ñoom dañoo am yéene ci Sénégal rawatina am ko yéene ci président Diomaye am ko yéene ci nga xam ne mooy président Ousmane Sonko donte nag dañoo nekk ci benn situation ba nga xam ne si un peu compliqué jamono ji ci àdduna bi aussi tamit ñu bëri ci Sénégal damaa gis jamono ji ñuy attaqué les pays de l'AES gars yi comme l'a dit moo frère hier moo fallu mon frère Fallou Mbaye

chaque jour dama ne lu tax loolu les pays comme lu mel ni ay Joe Biden dañoo doon soutenir Macky Sall à 100 pour cent gis ngeen phrase boobu noonu da cee joué woon lu bare bare bare bare moo tax souvent Sonko dong woon a jege benn yoon ay Russie bari ñu koy koleel parce que boobaa dañ koy koleel wala dañ koy naan si Russie da koy fay dañ koy utalaat yeneen yeneen tur moo tax nangu ko woon a jege. ngeen gis ne kàddu gu mu yoroon bu mu waxoon jamono jooju mooy suñu yéegee dañuy créer benn force commune ba nga xam ne ni dañ fiy jëlee les jihadistes. loolu la waxoon vous vous souvenez de ça parce que Sonko a bien compris Sénégal lan la mën a gañe ci dëkk yow bu ñu stable gis nga Sénégal bu doon dëkk yow dañuy gañe ci ñun wala yeneen dëkk Afrique dañuy gañe ci ñun Sénégal mooy le seul pays capable ñëw fii léegi léegi léegi gañe lu mun lu xalaat ci li nga xam te mooy Afrique de l'Ouest kon donc Sénégal mënul bàyyi les pays de l'AES mënut a bàyyi CEDEAO ñaar yu ne leer nañ mënu leen a bàyyi léegi comment nañ koy def nag quand nu ñu koy après nañ ci dugg nañ ci dugg léegi ci kanam pour ñu mën comprendre mais avant ça dama bëgg ngeen xam les pays de l'AES danoo am deug ci kaw CEDEAO il faut que d'abord abord ñu nangu ko accepter ko dañu am deug ñom ñu am deug ci kaw CEDEAO les pays de l'AES en réalité ñu am deug ci CEDEAO xam nga jamono ji comme je l' dit à Mame Birame Wathie mon frère qui est un bol bol comme moi du question nag gars yi damay togn wala may ki bol <laughs> parce que je vous ai dit que man je suis Saint-Louisien et je suis bol bol à la fois mais nag lépp lu nekk ci man bawol moo ko def à la fois parce que bawol laa yoroo fa laa xam mooy sama lépp comprendre ngeen mais li may wax rek mooy am na un jour ma toog sama man li ma métti rek grand maam Biram du doon journaliste bu sénégalais di xam mukk mukk di ko yuux comme yeneen yi mais il est différent de parce que question bu muy traité ñu bëri du nga xam euh, suñu to sunu papa euh, bi nga xamante ni mooy Joseph tam demoon fan yee li nga xamante ni moom mooy TFM doon toj li nga xamante ni mooy situation géopolitique bi journal dama ko seetaan ay ree ma japp vous savez pourquoi savez que vie du bari ñu koy seetaan lu bari mais bu paré ñu bari dañ ko partager duñu xam sax luñu partager parce que li ñuy traité dëggantaan sénégalais yi lu ci ëpp ci ñu doon ko raté comprendre ñu ko mais situation géopolitique géostratégique te lim doon loolu mu doon traité lolé won ne Sénégal lu tax mu amoon position bu maga maga maga maga maga mag ci Afrique c'est parce que les intellectuels dans l'afrique en réalité c'était des Sénégalais dem le président Bassirou Diomaye fay l'a dit

bañ ko sax bu européen bu leen gisee da leen di neexal di leen may ay li nga xam te ni mooy ay nationalité untu seen moo frère ziar naa la na nga defa coonoon seen bu aussi tam ziar naa la ma sœur j'espère bien que vous allez bien donc loolu di woon rek Sénégal position bu mu nekk il faut ngeen comprendre ko Sénégal la droit amul droit à l'erreur amul droit à l'erreur ci choix bi ñu doon def mais il faut que nit ñi comprendre que les pays de AS ñoo am dëgg j'ai vu des gens des fanatiques qui disent les les les moo grand boobu noonu ci TFM sunu papa sax lay wax limi wax ba gars du intéressé duñ ko parce que lu moo nu ay simbe les gens neex ay fanatisme neex way Les wax way way nga développement du lolu son ko tax mu wax masse critique lu tax tey joomaay dafa fexe keneen bëgg loi ba xam c'est pour protéger les alerteurs gars lolu du hasard lolu du hasard les loolu koy comprendre sont des gens xam am sont des am dépassement par rapport ak am détachement par rapport ak comprendre li nga excusez-moi parce que fait un peu chaud à Dakar comprendre ñi. souvent quand j'entends certaines patriotes qui disent Fallou Mbaye quand un <laughs> quand j'entends yenn patriotes yi ñu taxaw di critiquer les pays de l'AES et autres ça veut dire que vous n'avez rien compris parce que ñoom ñoo am dëgg te dinaa leen wax pourquoi ñu am dëgg ak Sénégal na la ci mën a profiter pour mën ci gagner le maximum possible te Sénégal bu demee muy CEDEAO muy les pays de l'AES par force dañuy dem li leen wan loolu tey jii gis nga ECO Alassane Ouattara bloqué woon na ko de mais wallahi Macky Sall bu ko bloqué wutoon par force dem par force day a fallu Macky Sall tegaat mais gars il faut ngeen comprendre ay mbir yu bëree bëri d'abord il faut que nous comprendre que démb président Bassirou Diomaye Faye da ko wax manam daf ne pour toute formation fay am déformation formations, nga dégg ngeen wax jëm dégg pour toute formation fay am déformation mon frère Moussa Ndiaye Diallo mon bon patron dongo, <laughs> Pastef ça va yàlla ne yàlla defal jàmm merci beaucoup mon frère Ndiaye mais nag Ndiaye bi nga sant rek man moo ci jaxal quoi. njaay bi nga sant moom a ci xaw a jaaxal góor a góor a soxna incha la moo tax il faut ngeen comprendre que ñu tamit pour ñu développer il faut que ñu déformer wu te déformation boo mën di gis day metti du doon lu yomb du doon lu fase te déformation boobu dafa am la nga xam ne ñu def ci bokk c'est vrai que je sais Sonko mi ngi avancé lentement je sais que Diomaye mi ngi avancé lentement mais dama bëgg man alerter en tant que alerteur man dama bëgg wax en tant que ki nga xam Sénégalais moy sama gis-gis ak sama xam-xam bi nga xam amna ko mu tout ne li la gis d'accord ko li ni gis naa ko d'accord ma ko de buñ ko defoon moy gën amana lolu may wax kay koy dégg moom dina mën comprendre ba mën a ci nopp mën a amana li lii may wax dina stimuler yenn panafricaine wala dina stimuler yenn tête yu ngand ci Sénégal ba gën wax ni ñu comprendre orienté wu xam fu bëgg a jëm c'est important pourquoi ma les pays de l'AES ñoo am ñoo am dëgg te Sénégal ma je c'est vrai que mënul bay ñaar dëgg yépp waaye dafa am fu wara taxawé carrément te man je le dis et je le répète et le meilleur je l'assume mais suma développé ñu bari fi nan d'accord ak man man je suis sûr que suma développé nan d'accord man gars il faut que ngeen comprendre ñu commencer ci ben affaire bi ci jitu na len commencer ci français fa Ousmane Sonko lu tax mu xex français fa CFA bilaay du caaxaan motax gis nga à part de cette situation là ñaar yi mooy am la Sénégal wara def ñaar yi la Sénégal wara def soit day woo ñaari ñaari ante yëpp ñu toog waxtaan ci benn table juboo soit mu quitté leen ñoom ñaar kere moo ne boppam mais obligatoirement dañoo war a gën ci franc CFA te aussi tam ñu bëri dañoo yaakaar ne le fait que tey jii nga génn ci franc fa dafay am lu mu yàqu wala bokk leen monnaie wala bokk si gaaw déedéet mun naa leen jox te exemple keroog joxoon naa leen ko nee leen boo jëlee Suisse ci Schengen la bokk pour franc Suisse lay utiliser dafa bokk bi. ak yeneen yi nga xam bokk ko Union européenne te bokkul ci li nga xamante ni mooy li nga xamante ni mooy moo am na bu li nga xamante ni bokk ci ci li nga xamante ni moom mooy seen monnaie yoru ko xam ndax yéen ngi may déggam déet nga gis Norvège ak ñeneen ak ñeneen di protéger seen géej seen maanaam seeni jën la ñuy protéger uniquement seen napp ngir bañ ko partager Europe parce que loolu c'est l'économie dafa leen di bay koom-koom ñoom xam na ne suñ ko partagé comme que ñoom bëri nañ jën Europe kenn noonu ñoom xaalis la ci ñoom koom la ñu mën ko war a jaay waa Europe kon donc ko basaatee noonu kon dëkk yi amuñu ay am ay intérêt leen am te ñun suñu intérêt dafa bokk mooy les dëkk dëkk Afrique yi en réalité mooy suñu intérêt ñu bañ ñu bëgg les pays de l'AES la ñoo suñu intérêt ñu bañ ñu bëgg buñ jéemee abusé aw yu bàyyi leen bu buñ jéemee dof dof ba baleen musiba naaru laay moo ni dal buñ sax sonn moo tax Sénégal obligatoirement fii mu toll ak ressources yi mu am ak lépp lu mu am mu neex mu naqari dafa war a soit woo ñaari ante yi ñu wax parce que seul le Sénégal presque moo ko capable ñu wax ne leen hey on va se retrouver comme que ñaari ante yi kenn ñu fekk sa morom ñu créé waat beneen yi nga xamante ni mooy entité maanaam beneen organisation autant pour moi wala boog Sénégal génn ci ñoom ñaar tout en travail avec les deux organisations moom doon pays neutre ba pare observé parce que Sénégal bu demee tôt ou tard yéen dañ koy fekk si ba xool fan la gën a leeree parce que ku yaakaar ne AS bii nii dafa nekk pays ba nga xam day faible da nga nax sa bopp te AS dañoo am dëgg ci kaw li nga xamanteni mom moy mooy parce que bu faté ñun bu nu amnistie bu parce que le fait que gaaw faté baaxul gars fi la lu fekk les pays de la CEDEAO ñom ñooy les ennemis de l'Afrique, c'est ça la vérité mam biram ñene ñeneen dañ koy wax nit ñi du ko dégg mais moy lool moy dëgg les pays de la CEDEAO sont les ennemis de l'Afrique ñom ñoo taraloo Afrique de l'Ouest parce que ce sont les serviteurs ce sont les les serviteurs éternels de la France et des occidentaux c'est ça la vérité nous ñoo nangoo doon joomu France te pour wax leen ci lu gatt rek pour ngeen comprendre ne dafa am dama lañ ci jox ay ay lu leer la xam kenn du ko dindi gis ngeen bu ci jitu muy français fa comme numu lañ ko waxo sank gis nga bëss ba nga xamanteni dañuy jot li nga xamanteni moy français fa ñu jël suñu indépendance dafa am ñetti pays yu ci génn moy les pays du maghreb li may wax nak ku neex nga dem nga vérifier parce que man souvent damay wax damay bëgg nit bu neex nga gën ci laaf bi dem vérifier ñu su suma juumee nga contredire ma man bañuma ko mo rectifié wu ma jàngale ci sa xam-xam c'est important bi ci jiitu par rapport ak li nga xamanteni mom moy français franc CFA indépendance bu ko yéen pays afrique yi commencé jël dafa am ñetti pays yu ko jël ci yu ci génn ci franc CFA dégg leen bu baax li ma leen di wax muy Maroc muy Algérie muy li nga xamanteni ni muy Maroc muy Algérie mooy li nga xamante ni aussi tamit euh, mooy li nga xamante ni mooy les autres pays là keroog bu ñu ci génnee ñoom damay laaj dëkk yooyu nga xam ne ci ciy génn est-ce que danoo nekk ay dëkk yu pauvre wala dañ faa jaar nekk ay pays yu riche loolu laa leen di laaj est-ce que dëkk yooyu noonu génn ci français fa dañ cee jaar pauvre wala dañ cee jaar albarka man je crois que personnellement su ma wax dëkk yooyu noonu dañ cee jaar sant yàlla bu baax a baax parce que dëkk yooyu bay nekk ci franc CFA mënulul seen bopp dara temps yooyu ñu ngi nekkoon ci bu mu jàmm mais ils ont compris que monnaie bii nii monnaie coloniale la da leen di empêcher seen développement moo tax dañ cee génn moo tax dëkk yu mel ni Algérie moo tax dëkk yu mel ni Maroc dëkk yu mel ni kii bi ñu ci génnee danoo sant yàlla bu baax a baax moo tax aujourd'hui dëkk yooyu noonu boy xol ñoy les premiers partenaires ñoom les premiers partenaires li nga xamni ti union européenne premier partenaire aussi tamit en Afrique de union européenne ñoy premier partenaire économique et commercial ci yoy noonu ñoy ñooy premier partenaire France kon donc xam ngeen dëkk yooyu ba ñuy génn ci français fa dañoo am raison te tey rëccuwuñ ko donc nag vaut mieux tard que jamais kon ñun Sénégal dañoo war a génn ci français fa qu'on le ou non dañ ci war a génn sans négocier le franc CFA soit dañuy and ak sous raison bi dëkk yi mooy dëkk AES bi ak li nga xam mooy CEDEAO ñu àndandoo dafa suñu monnaie commune demoonoo wala bokk ñu neutre séparé créer suñu propre monnaie te tant que amuñu fitu parce que Bassirou jomay laa di yeer de alhamdulilah ba mu ko waxee nga xam ne kenn du ma ne mën naa ko wax dafa ne boo bëggee xol tout formation bu bees day am déformation te déformation day dellu du yomb kon donc ngeen gis ne gars yi ngeen baal ma dafa tàng moo tax ma baal taal vente loo xam naa bëri na coow mais je suis obligé ma taal vente loo bi parce que dafa xaw a tàng quoi donc ngeen gis ne dëkk yooyu noonu biñ ci génnee tey ji Maroc jamono ji may wax yow yor na banque donte États-Unis mu ngi ci ginnaaw donte Qatar mu ngi ci ginnaaw waaye yor na banque yi gën a puissant ci jamono ji ci Afrique banque yi ëpp doole seen agriculture dem na seen lépp dem na militairement tam ñetti dëkk yooyu nga xam te ni dañ caa génn dëkk yooyu nga xam te dañ caa génn militairement dañu mën ci secteur yëpp jamono ji dañu mën secteur yëpp nangu loo woon fenn yoon fu n ñoom ñoo nu mën kon donc xam ngeen ne dëkk yooyu noonu danoo am dëgg suñu kaw bu baax a baax a baax a baax a baax waaw muy Algérie tey muy Tunisie mooy li nga xamante ni moom mooy Maroc dëkk yooyu noonu tolluwoon ak Sénégal ci dara mais dama leen di ne dëkk yooyu noonu avant indépendance Sénégal moo leen mënoon ci lépp Sénégal mais de le san jot indépendance dañoo génn kon donc na franc CFA yi Sonko ba mu naa lañ ci génn man ba mu ko déggee dama yuuxu tëpp dama kontaan vous savez pourquoi parce que je me suis dit que à la fin amna leader ba nga xam ne ani apporter li nga xam moy mooy déformation bobu nonu ah pour am beneen formation ba nga xam day même bi metti ñu def ko kon donc ñun forcément li nga xamante moy éco bi ni parce que gars yi dañu divertir dañu divertir pour bañ wax l'essentiel essentiel te l' essentiel boobu nee seul le Sénégal mo meuna a ubbiloo yenn parce que le Sénégal su comme que yéen ñaari yi dama leen waxtan pour jubóo man je sors ci France damay gën ci du duma accompagner AS mais je vais être votre partenaire vous deux à la fois je vais travailler avec vous je damay respecter seen souveraineté comme nous ko passé Diomaye waxee damay créer son propre monnaie parce que mënu moko ko parce que mënutuma utiliser un monnaie coloniale est-ce que vous comprendre te papa Sénégal da ci gën à 100% te boobaa Sénégal wax na dëgg léegi nak dëgg yoy non nga xam te ne nañ ci tay tay dañu am ndam suñu kaw

parce que tamit il faut que nit ñi comprendre benn affaire mu ngi fi Sénégal te li taxoon lee wan ne la base militaire yooyu noonu musu ñoo rouler pour les intérêts de l' Afrique musu ñoo rouler pour les intérêts du développement de l' Afrique parce que bu bu loolu amee rek ñoom du leen arrange dañuy dee loolu da leen arrange du leen dee ndax booy xool dañ ne la lii may wax ni waxuma ko nag ki nga xamante ni moom moo ko wax moom moo génn récemment génn wax ko comme neex mën nga def vérifier parce que man souvent damay bëgg a joxe ñoom seeni données ba pare seen seen données yooyu ñu joxe d' accorduma ci lii laa d'accord su ko kum neex nga dem xool bu d'accord nga ci lii d'accord ci moo tax souvent may bëgg propre donné ak propre wax c'est important boo xoolee tey nga ni le général euh, français muy le général français ak le général américain ji le général euh, euh, américain bi xam nga bu dafa génn conférence de presse malheureusement ñu doon ko raté

ba pare am na leadership am na légitimité ba nga xamante ni fu leen neex ñu dem ndax xam tax ñoom ñoom légitimité d' abord bala may dugg ci général bi wax que en Afrique fii ñaari mbir ñoo fi am CEDEAO ak AES AES ay putschistes la coup d'état leen def AES CEDEAO def ay coup d'état ce qu'on appelle constitutionnel kon ñoom ñoo yem kiif kiif xaw ma ndax yéen ñi muy déggal maanaam lu ëpp ci président yi nekk CEDEAO ay coup d'état constitutionnel leen def ak ñee def coup d'état militaire kon ñoo yem kiif kiif. contrairement ak président Bassirou Faye parce que vous le d'État constitutionnel am vous avez deux am deux mandats am d'État constitutionnel modifier constitution d'État constitutionnel allez voir les chefs d'État de la CEDEAO deux mandats, vous d'État constitutionnel allez voir avez deux mandats, vous vous verrez que vous avez légitimité pour mun leçon de morale bu les pays de e man waxew ma sama bakkan ay fee laay waxal ay doy laay wax ay ay données yi nga xam ne moo fi nekk moom laay waxal léegi nag fekkee li ma wax dama juum de plus mu doon ma démentir parce que man ragalu ma ku ma démentir day tax ma jàngaat ci xam-xam léegi nag loolu moom may ora loolu moom may autorité Diomaye ak Sonko ñu mën a wax ak ñaari dëkk yi parce que ñaari dëkk yooyu noonu du mës a nawlante parce kii day ŋaañe kee ne ko xëy yow da def coup d'état militaire a doon putschiste parce que da ngaa def constitutionnel ëppale woo ma tous te ba pare yow da ngaa ko ne di jaamu waa France léewal loolu leen mooy France musul nangoo wax ci les coups d'état constitutionnels bu ko arrangé mu wax bu ko arrangé mu wax mën naa leen ci jox exemple bi coup d'état di am constitutionnel yi musu cee wax am na dëkk yoo xam da ci am mu ŋàññi mais Tchad exemple bu ñu ko arrangé bu dee xamante ni Tchad looloo ko arrangé France pipi ci moo ci coup d'état boobu noonu am coup d'état la fois militaire parce que boobu kooku les deux à la kon ça veut dire que ces pays ñu ñoo fi nekk naan démocratie ñoom ils n'ont pas d'amis de démocratie développement lañ am ñoom ils s'en fout développement lañ am ak fonk seen doomu réew seen yoon ci démocratie boobu ngeen wax ñoom seen démocratie seen démocratie réew la mais en dehors de leur pays c'est leurs intérêts qui les intéressent mais pas les démocraties pas démocratie ñeneen ñi moo leen intéressé du parce que xam nga yéen a ngi may dégg intéressé leen yor leen seen mbir les pays là que vous voyez c'est le dëkk de day am démocratie parce que nous respectons le seen biir parce que ñoom ñoo bokk nekk bàyyi fraternité bi que di woote ñoom dañ koo gëm di ko dund Mais entre Américains, muy entre Européens, entre français entre italien seen biir nous d'accord nañ dund démocratie joxante seen biir cër waaye en dehors de leur pays ils ne visent plus viser démocratie ils visent leurs intérêts démocratie keneen ils s'en fout tant que démocratie ba fa seen intérêt la la favorable ils sont top ils mais tant que nekk fa nag d' kon donc loolu di woon ne dëkk yooyu noonu fépp fu ñu dem mën fa andi trouble lekk dañ ko fay andi léegi loolu moo tax le général bi nga xam mooy le général américain bi nga xamante ni tey jii euh, mooy le travail tropique nga xamante ni moom la jox mu nekk général bi nga xam ne dañ ko tabb fii ci Afrique maanaam général Afrique bu ñu tabb Amérique bu ñu tabb fii ci Afrique nga xamante ni moom mooy commandé troupe bi fi nekk fan yii dafa jën def benn conférence de presse. pour wane les pays de l'AS am deug ci sunu kaw dafa ne 2008 4 seulement écoutez-moi très bien 4 seulement ci état islamique mon école fi ci Afrique 4 mo cent fi ci Afrique loolu la wax d'accord 4 de état islamique dama lay ñu xol 2008 état islamique Il dëkk la doon bari de ñu 4 mo fi 4 yoy non bam fi nekké

dañuy xeex li nga xamante ni mooy terrorisme dëkk yooyu bu ñu dajaloo dëkk yooyu yëpp bu ñu dajaloo dañ doon laaj un milliard de dollars pour dindi fi les 4 pour cent loolu déglu mbaax pour dindi fi les 4 pour yooyu ne su gën a joxee un milliard de dollars dinañ jënd ay armes dinañ jënd ay hélico dinañ jënd ay F16 yooyu yëpp bu ñu ko jëndee pare ñu suñu biir danañ xeex ak 4 pour cent yooyu ndax 4 yi du dara. bi mu toogee réunion yi nga xamante ne mooy occidentaux yi muy France muy États-Unis affaire yooyu dañ ne waa d'accord na. parce que ñii lu leen jox yomb na ci ñoom torop un milliard de dollars du dara ci dëkk yooyu noonu ñu ne d'accord nan mais ñoom seen biir bu ñu demee toog xam ne ne loolu noonu pays africain yooyu demandé woon muy ay Mauritanie ay Mali buñ ko ñooñ bu leen ko joxee dañuy dañuy rey jihadis yépp ba nu dee da leen di fomm ba noonu ba biig un milliard de dollars yi jotuñu ci fukki fukki dërëm jotuñu ko ci fukki dërëm jotuñu ko ci au contraire dañ ne comme que un milliard danoo dañ leen teg ay conditions comme que un milliard dollar ngeen ngeen bëgg bàyyi leen ñëw ñun accompagner leen installé suñu base ñëw installé fi seen i base profité un milliard dollar yooyu ñu détourné ko jox li nga xam te ni mooy terroriste yi pour que ñu mën a gën a terroriser Afrique parce que li ko waral mooy France bi nga xamante ni xam nga keroog grand bi mu ko doon waxte waxoon naa ko alhamdulilah ba grand bi ñëwaat confirmé ko muy sunu grand bi nga xamante ni moo génnoon keroog TFM tour bi daf may échappé parce que maa ngi ci live des fois ça m'échappe donc mu toogaat di ko leeral ne leen afrique bi nga xam ne ñu ngi jox indépendance yeneen dëkk yi France dafa ne woon dafa bëggoon amputer benn territoire ci Mali ci Mauritanie ci Algérie bëgg faa def benn état vous savez pourquoi parce que zone boobu lu mu yor ci pétrole lu mu yor ci gaz benn zone yoru ko laa leen wax Russie rek moo ko ëppale Russie rek moo ko ëppale te Sénégal li tax ma koy concurrencer parce que Sénégal dafa am pétrole ak gaz ci géej bi bu doy sëkk am benn côte ba nga xam ne est plus de 400 nangam kilomètres yi dem xaw ma ndax yéen a ngi may dégg benn code boo xam plus de 400 kilomètres di dem te en wax blocu Sénégal doon bloc yoo xam te ni bloc international sax dañuy déversé wu ci li nga xam te mooy blocu Sénégal loolu moo tax blocu Sénégal doon bloc yu am doole moo tax mun koo concurrencé léegi nag France foofu la bëggoon a créer benn état fantôme mun faa jël pétrole mun France tey nu mu demee ba Amérique continent Amérique dem kon gis ngeen ne loolu waraloon ñooñ bi ñu demandé un milliard de dollars yi bu ñu demandé un milliard de dollars yi pour rey jihadistes yi ñee dañ ne bàyyi leen ñëw ci dëkk bi ñëw ci dëkk bi pare jox ñu leen un milliard de dollars yi. entre temps Ukraine bi nga xamante ni moom dafay guerre maanaam moins moins de deux mois dañu leen ko lu mat 37 milliards de dollars waxuma la yeneen yi ñëwaat de moins de deux mois bu mu commencé guerre bi ak li nga xamante ni moom mooy Russie te ñun ñaata pays leen woon Afrique ñaata pays la woon cinquante nangam pays xaw ndax yéen ngi dégg fu may waxee am déet ma yéen ngi réfléchir fu may waxee pour wane la ñii seen bopp moo la ñor te les AS danoo am parce que dañ leen a def métit ñu supporter nag dem ba population su saabu saabu bu un milliard ñoom ñu muñ ko ndax ñoom pour changer les choses moo bu leen mës a yaakaar ñoom ñoo ci CDAO CDAO itam ñoom duñ fa parce que ñoom ay ay pousse lan ay def coup kon ñu juger les gens de l'AS parce que ñu Sénégal toll nañ fa nga xam dañu wara war a doon dëkk bi wax deug dañu wax deug deug dëkk ba am ko wara oser di ko wax parce que nous sommes des patriotes xey ñu xey bëgg Pastef dañu bëgg Pastef parce que dañu ko bëgg pour Afrique dañu ko bëgg pour mu andi changement dañu ko bëgg andi pour mu andi benen vision dañu ko bëgg andi pour que mu andi benen doctrine ci Afrique te doctrine bobu noonu dafa and ak wax deug même si ça tue même si ça souffre même si ça neige xam ndax yéen ngi may déggam déet ci dina bëgg boobu la nek motax tax yenn ñi dama leen di gis tax kon nangul na leen ko tax kenn ko na ngay nangul kenn ci lu bëgg nangul na ñenn ñi ñu tok ñu ne ah Sonko la bëgg bëgg ma ko wax Sonko dara bëgg ma ko wax jomay dara dama leen ko nangul parce que man ça fait partie du projet ban at la ci nek jarul ma wax fi man kuma xam-xam ma ci projet bi et je suis dama bok ci ñuy défendre projet bi bañ na ko ba am ministre sama copain sax bu falee ku mu war fal ma génn dénoncé ko te pourtant j'ai des amis ministres que j'aime bien te kuma ci laaj sama xalaat dara mo wax loo nam rafetee et wallahi wal kitabi waat ko fi ma tok wallahi suma ma solo nu réussir tay tay tay tay ba changer Afrique ba changer sax monde bi même suñu ennemi ñu changer leen parce que c'est ça qui m'intéresse mais nak du tay ñu wax dëgg lé nak motax suma su ma gisee ñenn ñi attaqué les pays de l'AES ça veut dire que comprendre dëgg nga gis né 1 milliard de dollars yooyu pays AS soxla woon malheureusement ñu ci 2008 ba ni may wax yow jotu ñu ci Ukraine commencé guerre même pas un mois ñu jox ko waa Ukraine ñu jox leen 37 milliards de dollars vous voyez différence bi ça veut dire que ces pays là muy France muy muy muy États-Unis musu ñoo bëgg musu ñoo bëgg ñoom seen jëmm bopp terrorisme jógee Afrique pourquoi parce que Afrique bu amul terrorisme dañuy xalaat parce que jamono bi nga xam ne dafa calmoon danoo jek-jek rek xalaat écho hé trois mu ne ñu ngi def musiba ñi ñu ngi xalaat écho de ñii agro sous ñu am bis bu ñu xalaatee écho ba teg écho ñun on est foutu na leen créé laat beneen problème te problème boobu xam nañ ne lu tax dëkk yi bëri doon xaar Sénégal xam nañ ne Sonko sël Diomaye sël ñoo am capacité ñëw topp ñëw dagg affaire boobu noonu ah. ci ñaari conditions yi soit ñu woo les deux pays ñu toog moo tax avant ñu ñëw dañoo tas parce que xam nañ ne junte militaires yi nii bu ñëwee ñoom ils ont dañuy d'accord ECO te Sonko va travailler avec te y aura quelques pays comme ay Nigéria ay Ghana dañuy d'accord dem directement parce que pays dañuy d'accord directement dem ci éco bi ay Côte d'Ivoire ñooy bañ bu yàggee dañuy rangé wu ay beneen ñoom ñooy bañ bu yàggee dañuy rangé wu mais malheureusement moo tax ñu teel a affaiblir loolu li nga xam te ne mooy projet bu Sonko amoon ak Diomaye moo tax ngi seen commencé diaboliser mooy dëkk ñetti dëkk yooyu pourquoi ñu diaboliser ñetti dëkk yooyu te diaboliser wul dëkk bi nga xamante ni moom mooy Guinée parce que le gars de la Guinée nee naa leen moom dafa jaay kaalaam moom léegi dafa nangoo sukk jëblu ci kaw France moo tax kenn jamono si ko moo tax quand je vois les apl les patrons ñu koy applaudir ma def benn commentaire am ko naan non il a raison c' est parce que ñi koy wax yaa sama benn boy bu dëkk Bawal di <laughs> di critiquer quoi li ma tudd turam damay dama koy ree bàyyi mais frère dama nga demandé bu baax wala nga enquête ci kaan boo ci enquêté rek di xam ne muy wax dëgg la wala dëgg ces gars sont loolu kenn du ko dindi te ñun waxuñu ko pour wax mais dañ fan yi gis naa booy bi wër di sax di gëstu di joxe information gars yi di ko bëgg a naan ko moytu nag dafa ëpp ak Sénégal loolu la a dégg ngay gëstu di wax rek la ñuy a dégg léegi kon nga gisee ne dëkk yooyu doo nekk dafa nekk ci mooy en 2008 4 ñu nekkoon ñu bëgg leen a ñu soxla woon 1 milliard de dollars pour bëgg leen a rey ba terroriste dootu ama ci Afrique gars yi nanguwun de xam nga la def général bi dafa toog ba 2024 mu ñëw def conférence de presse bi mu defee conférence de presse lan la wax mu ne Afrique 2008 ba 2020 ba 2022 4 pour cent kese ñoo fi nekkoon ci terrorisme biir Afrique d'accord mais ñoom ñi nga xam te ni am nañ satellite am nañ lépp mën a surveiller fépp pourquoi nan la si jihadistes yi mën a jugee côté ba nekkoon ci Maghreb waaxu bu pénétrer dugg Afrique jaar Égypte te ñoom gisuñu ko te ñoom ñoo doon contrôler li nga xamante ni mooy Libye di fa sàcc pétrole def la neex ça veut dire que ils l'ont fait sciemment et volontairement ñoo ko tey ñu ne entre 2022 ci la ak 2000 24 affaire bi ci la yokkee déglu leen époque yi bu baax ak dat yi ñu ne de ak vingt 2024 ci la affaire bi yokkoo yokk bu doy waar ci leen jugee de 8 pour cent ci leen jugee de 8 pour cent à 40 pour cent de 8 pour cent à 40 pour cent xam ngeen ñaar dat yooyu lan la lay joxe ñaari dat yooyu noonu mooy correspond net ak les pays de l'AES bi ñu jógee ne ñoom à chaque fois bu mu bëggee dem ci front bi français yi tere leen wala américains yi.

ba tay les wax les femmes, les femmes manam les femmes, de femmes, les femmes, am ci kaw ñun de dama les wax femmes, les ci Macky Sall les ils ont le droit de fipu. je les soutiens à 1000 pour cent dañuy parce que les ñoo jaay ce sont les ñoo leen jaay ñoo jaay seen propre frère vous voulez que nous femmes, les mais arrêtez vous voulez que femmes, les femmes, les femmes, jaay ko ko def leen parce que ñu ñi wax ni ñun ñi CEDEAO daf ñu jaayoon CEDEAO dafa ñu jaayoon CEDEAO dafa bokkoon ci ñun appuyer Macky Sall pour que Macky Sall mu ci gën loolu mooy réalité bi dañ koy xar ci digg bi wax ko donte ñun on a besoin de parce que su ma ne CEDEAO nag du ma ne population dëkk ya mais dirigeant dëkk ya fa nekk noonu jaayoo parce que il faut ma def la part des choses parce que dëkk yu bëri y a des gens yu fa nekk des patriotes yu gëm Sénégal yu gëm yu avancé kon donc ngeen gis ne ñoom date yi ma leen jox mi 2002 2024 dafa tasante jamono bi nga xam ne faamaa yi malien yi burkina bi dañoo fipp ne leen ça suffit génn leen suñu dëkk def leen nangam on va travailler avec la Russie Russie for fournir nous ay armes fournir nous ay ay ay données GPS maanaam ay données satellitaires fournir nu lu bëgg lépp pour ñu mën a jàkkaarloo ak yi nee na jamono jooju nag ci la rebelle yi ëppee duggee li nga xamante ni moom mooy biir Mali ah, yéen nag laay bàyyi ngeen jugé vous savez très bien que ce général là il ment royalement je dis bien ce général américain là il ment royalement mais loolu prétexte la ci ñoom pour que ñu mën a dugg Afrique tegaat fa yeneen base militaire pour faire face à li nga xamante ni mooy la Russie aussi tam en continuant en dominant en continuant pour do en continuant pour dominer li nga xamante ni mooy Afrique ñoom seen mbir yëpp mooy lan c'est pour continuer de dominer l'Afrique moo tax moo tax ñoom ñoom ñu teg alibi boobu ne terrorisme léegi yokku na Afrique dafa gën a garaaw te en réalité gis ngeen documentaire bi nga xam ne français def nañ ko mais véhicule yu ni euh, gars yi di dawal mais ay marque français la véhicule yu ñu joon ay marque français la wala mu doon yeneen marque ñu jëndee ko mu jugee France leer naññ dugg ba ci biir jihadiste yi ak munitions yeeg yëpp ci France lay jugee dugg ci biir jihadiste yi waa kii les ravitaille ce sont les frères français ce sont les français qui les ravitaillent en disant qu'ils vont les combattre non du tout français yi xam na leen fa nekkoon mooy eh maa la ravitaille li ma bëgg nga may defal boo bañee français yi guerre la falaat keneen kooku ñu wax c'est guerre ak les femmes pour que ñu moom ñoom ñu accès ci territoire boobu su ko defee ñu ne territoire bi dañ koo xaaj à deux moo tax ñoom ils étaient toujours avec les ñi nga xamante ni bon ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci normal bi doon ay séparatistes ils étaient toujours avec là kon les pays de la CDAO ñoom ils étaient en complice léegi nga gis ne progression boobu noonu noonu nga gis ñu def ay caaxaan la loolu du dëgg général moom la wax mais général bi la la ci bëgg parce que daf ci bëgg ut bi pour dugg pour dugg fi nga xamante ni mooy Afrique benn dem Côte d'Ivoire teg fa benn base comme ni fa armée française tegoon base base bu rëy rëy est-ce que yéen a ngi dégg wax ji Sénégal la teg base de te dëkk yëpp da day tegaat base fi nga xamante ni moom mooy euh, comment dire je Côte d'Ivoire tegaat base fi nga xamante ni moom mooy ay Bénin. vous savez pourquoi entre-temps def nañ fa boo jëlee Bénin rek neuf pistes d'atterrissage nga xam ne nit ñi gis nañ ko mu leer nañ américain teg ko fa xam nga faire pour faire quoi français yi loolu moo tax nga dégg na français yi ne dañuy retirer dañuy wàññi seen troupe yi nekk au sol ba pare ut benn commandement pour l'Afrique mais loolu mooy yabaate xam nga loolu mooy lan mooy yéen guerre léegi dafa moderne soxlaatul ma yóbbu ay troupe ci mbedd mi ñuy rayante déedéet dama leen retirer à partir des bases français yooyu ñuy def man tam maam fa base à partir là-bas on va surveiller tout l'Afrique et tout le monde à la fois loolu mooy dil bi ñi may surveiller yëpp ku ci aw yoon baax la ku ci awul yoon moo mën négocier rebelle yi ñu dal sa kaw yàq sa dëkk moo tax tous ces pays là yooyu te xoolal xoolal Bénin xool Côte d'Ivoire ni mu jegee les dëkk AES yooyu e, loolu c'est de la provocation pure dure parce que dëkk yeeneen jël lu si année seen dëkk di liggéey ñoom militairement nga ñëw ne ne yow da ngay accepter militaire yi nga xamante ni moom mooy américain te ko seen base mooy guerre bu ma leen waxoon ne leen d'ici 10 ans bu ñu dof doflu dina am fii ci Afrique yàgg naa di alerter yàgg naa di wax malheureusement nag vidéo yéeg yëpp balaa gars yi di ko couper di ko wax affaire bi ne teel commencé nit ñi ne di waxoon na ko di waxoon na ko prédire na ko mais tous les conditions dafa réunir pour guerre boobu noonu jamono ji am tous les conditions dafa réunir malheureusement peu de sénégalais peu de journalistes ñoo traité la question géopolitique ñoo koy traité te loolu lépp dafay am impact ci Sénégal bu doy waar impact suñu adde suñu li nga xam te mooy suñu meññeef yi feeñ impact bu doy waar a doy waar mënoon ko éviter nag mënoon ko éviter mais nañ jàpp ñu ko war mooy ñu nekk palais te ñooñu maa leen ci ñaan ñu liggéey ci parce que ku leen conseillé leneen da leen nax képp ku leen c' est vrai que nit ne Pastef nga bëgg way war a wax lii Pastef xam nga lan mooy charme bi bu doon lii may wax nii bu doon damaa bokk ci APR dàq nan ma bu yàgg mais Pastef xam lan mooy charme bi boo d' accord da nga ma contradiction da koy andi défendre ko ba ba mu neex loolu moo tax En militant de Pastef il war a doon quelqu'un d'averti pour comprendre qu'il y a des contradiction le fait que alhamdulilah ba président Bassir Diomaye Faye waxee le fait que ñuy andi contradiction yooyu contradiction c'est mooy tax nga ñu trouver juste milieu ñu trouver équilibre équilibre moo gën ci loo gis donc vous gis ne ñoom bu ñu demee ba ci ok les gars nous allons partager s'il vous plaît vidéo parce que pas bi ñu signaler signalé nous signalé page page nous ñu s'il vous plaît nous allons partager mettre like parce que page bi dañ ko restreindre ko page parce que publication bi ci def ak li chaque ñu gravement même mais pas importe je daf le parce que je li traiter. traité pas dama non non

bëgg population bi jóg ani soulèvement contre li nga xam mooy les putschistes pour que France mën a teg ko neex imaginez c'est inhumain comment un président sa ay frères sa compatriote à côté say voisins nga leen di teg sanction yu métti yooyu sanction yooyu sax nga xam ne Russie tegu ko Ukraine Russie bu ko neexoon léegi mu bombardé Ukraine mais xam ne ci biir Ukraine am nañu d'accord moom moo tax yenn yenn sites yi rek lay bombardé yu stratégique yi mais non nango bombardé yenn population yi mais ñun ñoo ñun ñun lu def moo gën a pire muy lan les pays de la CEDEAO imagine sanction boobu la leen tegaloon raison pour laquelle sentiment de haine di duggee ñoom au lieu nag président yooyu ñoo yee parce que président yooyu ay coup d' état constitutionnel la def ñu xam ne loolu bu ko encouragé ñoom seen doomu réew itam mënoon a jóg def coup d' état parce que ñoom ay coup dañoo yàgg def ci ay coup d' état constitutionnel te raison pour laquelle ils essayent de de sanctionner les les les militaires qui ont le pouvoir malheureusement les militaires ne sont pas valables. Les militaires ne sont bu valables. seen am d'accord nañ ci coup d'état bi mais ñee danoo forcé def seen coup d'état constitutionnel kon ñee ñoo leen gën a valide ñee ñoo leen pour gouverner mais provocation mënu weesu nga jël ay France les États-Unis ont ko base parce que moi je rappelle leen États-Unis amna na base yi nga xam Mauritanie amna Sénégal diko ko waa yoo waaj Côte d'Ivoire diko ko tek fi nga xam ay Bénin juste pour surveiller pour contrôler Afrique de l'Ouest mais bu ngeen seetloo daf ko tek ci zone yi nga xamante yépp ñoy ravitailler les pays de l'AES là la ko tek, y compris les Français pour les contraindre pour jëm leen a contraindre pourquoi parce que la Russie est là ku toogoon ba guddi moy leen kon kon kon vous les Africains les pays de l'AES là ak la Russie dina cédé ci pression américain da ngeen di nax seen bopp te bu ngeen naree ne xañ jamm déclarer leen guerre bu ngeen leen xañ jàmm ñu déclaré leen guerre te guerre malheureusement dëkk yeneen dëkk yi moom lañ États-Unis affaire yooyu moom la mais la Russie ils sont très intelligents ñu def parce que souvent ñun bu ñuy wax danaan on défend la Russie on s'en fout de la Russie je ne connais même pas fan fan la je m'en fous de la Russie man c'est l'Afrique qui m'intéresse c'est le Sénégal surtout qui m'intéresse donc on s'en fout de la Russie je m'en fous de tous les pays du monde Sénégal moom intéressé Afrique moom intéressé nit ki ñun moom intéressé nekk ma raciste mais d'abord lu ñu dund moom neexul intéressé Palestine bi nga xam ne dañ leen déglu ne saa bu ma xëy na fay leen publication pour dire que d' ma publication Palestine yi sax moom moo tax ñu restreindre ma moo tax chaque jour ñu jox ma avertissement restreindre ma te duma ko bàyyi dama ko publier par force donc ngeen gis ne ngeen gis ne.

lu tax may la dëkk yooyu ñoom ñoo am ñoo am dëgg suñu kaw mooy jamono ji bi ñëwee tamit ban affaire lañ defar muy dañoo créewaat beneen problème en utilisant li nga xamante ni moom mooy Mauritanie parce que nee naa leen dëkk yooyu noonu tamit créewaat beneen conflit au lieu que yemuñu ci CDAO e seulement ak ñoom Mali ak ñoom Burkina ak les pays de l'AES mais dañoo ubbiwaat beneen problème ban problème mooy problème bi nga xam ne dañu ko créé entre Mali ak Mauritanie tout ça pour empêcher ñu am suñu mono commune wax ji wax ji yépp pour bañ que CEDEAO dafa amoon lépp intégration libre circulation des personnes et des biens bu weesoo quelques raquettes yi nga xamante ni suñu policiers ñu moo nekkoon inconvénient da dox bokkoon na ci organisation yu gën baax ci Afrique pour wax leen dëgg mais malheureusement CEDEAO lu tax organisation bi moom mooy léeg-léeg moo ko commencé yàqoon moom mooy coup d'état constitutionnel yi doon am nga xamante ni avis yi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci li nga xamante ni mooy euh, comment dire population bi d'accord ci woon am na cosaan parce que da leen doon forcer ay président ay coup d'état constitutionnel la leen doon tegale raison pour laquelle ay dëkk yu bëri commencé woon a fippu donc ngeen gis ne tey jii États-Unis boobu noonu noonu li tax muy def loolu di rayante boppam dafa am lu nekk derrière ça dafa am lu nekk derrière les États-Unis moo tax ku ne les pays di BRICS danoo dee da ngaa dof ku naan les pays du BRICS commencé dee da nga dof ku ne les pays de l'AES dañuy da ngay nax sa bopp. Et eh, économiquement mun ngeen a étouffer mais vous n'arrivez vous n'arriverez jamais à les achever du ngeen mës a achever vous les les gens de la CEDEAO mënu leen ko sax pour x bonne raison gis nga fan yee maa leen wax ci sama benn live ne leen président Chine moom moo yónni en personne directeur Huawei pour mu dem former leen junte militaire bi ci ci ci ci xawkalaat ci lu bare bare bare jëm ci li nga xam mooy espionnage intelligence artificielle ak yu bare bare mu former leen ci c'est <laughs> les pays les pays de BRICS là dañoo dajaloo waxtaan ci situation les pays de l'AES te li tax wax leen ko tey ji xool leen classement mondial bi yenn pays ñoo mën écoutez-moi très bien pour ngeen xamee ne bu ñu bu du ngeen arrivé mukk pour achever leen États-Unis nag day bëgg a sauver poom moo jamono ji parce que dañoo nekk ci déclin ku leen suivre def ni ñun def ñoom gis képp ku leen suivre ñoom da ngay daanu ci kàmbun daanu ndax booy xool jamono ji may wax ak yéen muy les états muy euh, européen dañoo am problème parce que bi classement bi mujjee génn dëkk yi mën ci àdduna bi dañ la Chine mooy première puissance économique topp les États-Unis topp kan lan la wax gars yi topp kan gars yi génne ma ko ci commentaire mu gën a neex ndaxte dama bëgg waxtaan sax am interaction gars yi mën a comprendre kan moo ci topp lay génne mais jàpp leen ne après troisième ba quatrième bi pour ma xaw leen ko signer ngeen wax ma kan moo ci topp mooy c'est entre Inde ak ak ak Russie pourtant de propagande la doon def ne Russie dafa pauvre propagande bu grave la def Russie dafa pauvre alors que nekkati yow du dëgg ndax leen Russie bay pauvre ay propagande la ay naxi la ay dóor la mooy dana le Russie dëgg leen bu baax dana le Russie jamono Russie ci ce sont les données de l'institut français des relations internationales kum neex mën nga dem nga dem taper institut français des relations internationales. nga dem xool lii may wax ñoom ñoo ko xool waxuñu ko ñoom ñoo bind ñu ne Russie mooy dëkk bu gën a riche ci àdduna bi par rapport ak sous maanaam Russie dafa mel ni Sous-Solon ay 10 pour cent rek la ci laal mu ci des mu ne pat ak moom ne pat jàpp njàmburam ndax Russie détourné na ba maanaam Botswana ci jaay jamaa moo dàq moo ëppale dàq jaay jamaa ci àdduna bi la jamaa ci àdduna bi détourné na Botswana bu yàgg toog leen xool nga wax ñu ne Russie déglu mu baax bëgg na bokk na bokk dëkk yi ëpp or bi ñu ne platine bokk na dëkk yi ko ëpp diamant ñu ne la li nga xam te ni le euh, palladium charbon xam nga Russie am na gaz am pétrole mais noonu la bëree charbon doyewuñ ko dara ñoom dëkk yi pauvre yi lañ koy jaay ñoom ils ne l'utilisent même kon ça veut dire que fu leen mën a koñee itam am na ñoom énergie bu doy pour mën a andi transformation ñu ne Russie feer bokk na ci dëkk yi ko ëpp na ci àdduna bi fer <laughs> kon xam nga ne industrie automobile ak industrie lourde ils ont besoin batay tey dañuy yoy mané wax ñu wax ni Russie dafa pauvre instant bi mom moy mooy 3 3e ak quatrième moom Inde end ñokay xëccoo de ci dëkk yi ëpp doole ci adno mom ak end nokay koy xëccor 3e ak 4e rom nañ ay Japon rom nañ ñu dëkk yëpp gaay na leen wax dëgg dem leen ngeen def recherche rom nañ ay Japon bu yàgg yëg seen kaw di dem militairement économiquement ak la la wax si quelqu'un di te dit la Russie est pauvre waxul dëgg man je m'en fous de la Russie je m'en fous de mais lool moy classement bi nga xam ne moom moo am li na la Russie tamit am na li nga xam ne mooy manganèse am na chrome am na nickel am na titane am li nga xam mooy kiivre waa ban dëkk mooy am loolu doon dëkk ba gën a yaatu ci àdduna bi <laughs> gën a yaatu ci àdduna bi ñu ne dafa pauvre et vous allez croire ça dëkk boobu mooy soutenir les pays de l'AES dëkk boobu ñu ne la sous solom la ñu ci estimé c'est soixante quinze mille milliards de dollars de franc CFA contre vingt quatre mille milliards de franc CFA pour Congo Congo xoolal Congo

bokk ci dëkk yi nga xam ne ni mooy ravitaay dëkk yu bëri ci ressource parce que moo tax foo foo toll Congo guerre rébellion guerre rébellion guerre rébellion guerre rébellion guerre parce que kenn ku ne da ngay jéem a chercher contrôler ay matières premières ay suuf yu am ay matières premières pour mën koo jaay à bon prix moo tax ñoom dañ koy analyser non seulement dañ koy jaay prix bi yomb mais aussi tam guerre tout le temps stable mais aussi tam dëkk yi bëri moo leen di ravitaay ñu ne dëkk boobu de 24 milliards de dollars la dese ci ay réserves mu dese ci suufam waaye léegi dëkk boobu bu dee moom moo ko dese Russie bi nga xamante si dese na soixante quinze mille déglu ma wax la soixante quinze mille milliards de dollars la dese ci ay suufam ci ay ressources naturelles ñu ne pays boobu dafa pauvre yow duñ ko gëm duñ ko gome moo tax mooy comme li ñu dal ci suñu njàng bi rek suñu njàng bi dañoo dóora dóora dóor ba xam ne fu ñu teg ci nag ndax ñu ci Lat ñu Cheikh Omar Baal ndax ba suñu doomee ñépp gëm ko lu bëri lu ñu jàngal ay dóor la loolu nag moom ñu dal ci Russie bii Russie boobu noonu mooy suñu les de l'AES kon xam nga les pays de l'AES bay faible vous vous trompez lourdement Motax américain ñu ngi déployer seen matériel yu gën ci àdduna bi pour andé ko Afrique pour di wajal guerre mo wax leen ko tay allez faire vos recherches pour di wajal guerre ben pour yenn ñu andé ko li nga xamné moy ne Côte d'Ivoire yenn ñu andé ko benn yenn yi moo y compris Sénégal bu ñu dof dofloo ñu andi ko fi mais nak lool musiba lay doon ci ñun après na ci ñu comprendre kon nga xamné pays boobu ñu wax ci Russie dafa faible wajul sax bay faible xamul sax luy faible na leer ñaar ñu ñu xam ko waaye sax bay faible te xam faible donc ban pays moo ci gisaat ma xam ne soutenir li nga xam ne les pays de l'AES muy Chine Chine la mooy premier puissance économique mondiale te nee naa leen ba nga xam ne ni capable na defar 76 modèle bateau ci àdduna bi moo tax ba navette de guerre boppam sax Chine moo ko defar boppam Chine mu ngi defar propre avion ay propre véhicule am amul instant bi li mujjee li Chine mujjee defar moy benn batterie ba nga xamni capable na fonctionner pendant 50 ans te doo ko muy dugg ci pétrole muy dugg ci portable manam portable bi may laay fee batterie ba nga xamni 50 ans doo ko chargé muy benn batterie ba nga xamni taay juróom la am am li nga xamni mom moy euh, ñu dugg ci biir li nga xamni moy uranium manam nucléaire te du exploser du def dara capable supporter plus de moins de moins de 60 degrés ak plus de 120 degrés ci tangay

te ci wax lañ ci Iran yooyu noonu rek pour ngeen gën a comprendre pour ngeen xam ne capacité pays yooyu am du du du du caaxaan du ay barabara gis ngeen booy xool dëkk yooyu noonu ngeen di gis ñu leen soutenir du ay dëkk yu faible moo tax les pays de l'AES là États-Unis moo yee jege si parce que c'est déjà fini pour eux mais loolu ku mën a simplifier mooy sa Sénégal mais nag bu ndox daf loo guerre am parce que benn pays di mu nangoo lâché moo tax les pays de l'AES là il faut que mu am ku leen di raisonner il faut am ku gën leen yuuxu parce que gis nga imaginer si c'était Sonko

islam bi léegi topp ci boobu autant pour moi France bokku ci moo tax dëkk yooyu noonu instant bi dañoo lépp de l'AES kon léegi les de l'AES bu ñu géré ñun ñëpp ñun ñooy perte suñu biir parce que kenn ku ci ne am nga ci soutien de taille bu taxaw moo tax dañoo war a réfléchir comprendre te kan moo mën a soutenir marché bi nag mooy Sonko moo tax buñ comprendre ne ñoom suñ commencé jàpp Sonko thème coup d'état am ñu perte Sénégal te bu ñu perte Sénégal c'est fini par rapport à les investissements yu ñu def fi muy investissement yu ñu def ci pétrole def ko ci leneen leen ils vont perdre ça parce que junte militaire ils vont directement se rattacher à la Russie ñu ne xaar leen ne leen bàyyi Sonko mu génn mais jëm ko yàqal en réalité ils sont en train de casser la dynamique bi nga xam ne moom la Sonko amoon ak Diomaye pour jéem a andi le panafricanisme tout pour andi organisation bu bu baax pour andi ñu dem suñu franc CFA parce que Sonko laa di ouvertement damay changer monnaie te pour wax leen tuuti ci monnaie bi <laughs> ngeen comprendre ci monnaie boobu parce que li may def ne maa bëgg moom transition moo tax ma koy defee nii ngeen comprendre li tax ma boobu doon gars yi dañ ciy génn jën euh, baal rek c'est un peu compliqué euh, euh, gis ngeen monnaie bi c'est est-ce que xam ngeen ne monnaie bi bi nga xam dañ ko yor maanaam France keroog après indépendance ndax monnaie bi am mbiri la de maanaam bi ñu jëlee monnaie bi <laughs> pour nous ñuy changer tur pour changer turu monnaie bi rek euh euh colonie français affaire yooyu ñu wax français fa yooyu noonu ñu wax diko ko ay colonie français yaa ngi deg dem ba mu yàgg ñu ne nangam nangam pour changer tur bobu rek est-ce que xam ngeen ne tur boobu pour ñu changer ko rek ñom en réalité fa lañ demoon ñoom danoo demone ci li nga xamanteni mom moy euh comment dirais-je danoo demone ci sen parlement.

Macky Sall 2 qui cent kese représenté ci ngeen di xéxal 2 pour cent la Macky Sall di représenté ci di malheureusement y en a certains qui l'ont compris malheureusement il y en a d'autres qui l'ont pas compris xam nga sais pas ma déggam déet malheureusement il y en a certains qui l'ont compris malheureusement il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Je ngi vous connexion moy dam kon ngeen gis ne kon ngeen gis ne ñom ils l'ont fait volontairement pour que Diomaye ak Sonko loolu parce que. man leer ma boo fëggee bopp Sonko lu ci nekk mooy nan laay def ba dajale ay pays ñu dem suñu mën xam naa ne loolu moo nekk ci xelu Sonko suba ak ngoon ak bëccëg nga gis ne loolu loo neex ci moo nu ci mën a génne parce que ñii fu nar a jëm ak ñoom problème la xamuñu kañ lay jeex nga gis ne ñoom bu ñu ñëwee defaloon malgré pour tànc les pays de l'AES doonoo fexe ba indiwaat problème entre moo tax guerre Mauritanie bii gis lu tax Mauritanie xaw a résister tuuti parce que ce nekk ci réserve toll moom moo tax moo tax ñoom seen jëm bopp mooy loolu. léegi bu ne ñoom ci général français boobu kese ci américain boobu ñëwaat leen ci général français bi tamit pour ngeen xam ne les pays de l'AES ñoo am dëgg gis nga général français bi dafa toog ba mu yàgg mu ne d'ici dix ans nous allons recoloniser l'Afrique waaw dama leen di laaj par les armes ab général spécial bu France ñemee taxaw ñëpp di ko gis mu ne il faut ñu recoloniser Afrique. loolu nag dafa waroon a am rupture pour corriger l'Afrique man moom dama koy wax man moom rupture boobu noonu dama ci d'accord en mille pour cent il faut mu am rupture comme na ko Bassirou Diomaye waxee déformation pour formation déformation la dafa métti il faut parce que ab général spécial ñi may taxaw ne nous allons recoloniser l'Afrique loolu musiba la loolu ban général moo ko ñemee wax fi Afrique mais benn général amul fit wax ko nan waxante dëgg ban mom wax ko te général ba wax ko bam koy wax li tax sanctionné wul ko yobul woon ko ci yoon yobul woon ko pour de la haie c'est parce que général boobu lu wax noonu parce que ñom dañ ci d'accord mais dam leen jox CV général boobu rek pour ngeen comprendre kan général bi jaar général boobu nee na la moo doon commandé troupe yi nga xam ne ni mooy jamono bi nga xam ni Rwanda Rwanda jamono ba ñuy xeex di rayante seen biir génocide dafa am troupe français yeen ko doon giñ général boobu non wax li tay ci Afrique mo doon commander troupe ya fa nekk général bo reconnaître l'Afrique. de ne doo recoloniser Afrique mom mo fa nek mom mo fa nekkoon turum sax dama ko seexloo je turum dama ko seexloo tudd général bobu Je ngeen di gis bobu tamit jama xoxuma la Rwanda de ci Afrique am CV Je am CV Côte d'Ivoire jamono bi nga xam guerre mu am guerre bu entre ethnie écoutez-moi très bien Rwanda Côte d'Ivoire moom moo doon commandé tur bi fa nekk mooy doom benn doomu ngeen baal ma ci kàddu benn doomu xaraam ba nga xamante ni benn doomu xaraam ba nga xamante ni fépp fu mu bëgg a dem pour jaxase affaire ethnie moom la ñuy yónni mu yóbbu tur bi français ñu dem jaxase fa ñuy rayante seen biir muy faral ñu ko neex rek ñi xam arrangé na France bu faral leen benn doomu xaraam la pour ngeen comprendre c'est benn doomu xaraam la ba xam ne ni loolu mooy métier en réalité mooy général sax boobu nga xam ne tey ji dañ ko waroon yóbbu cour kooku nga xam ne dañ ko waroon cour pénal international pour jëm ko jugé nga xam ne dootul génne ci ak li mu ci ay rey ci Rwanda créé ko ci Côte d'Ivoire a ay guerre la nga xam ne général boobu noonu moo taxaw ne dañoo war a reconnaître waat Afrique de force loolu nag est-ce que laajutoon rupture loolu est-ce que laajutoon président nga génn dénoncé ko carrément interdit même boobu mu ñëw Afrique gars yi su ma leen ne général boobu noonu ñoon noonu ma leen di wax le 4 septième mois 2024 ñëw na fi nga xam ne mooy benn Patrice Talon moo

ndax sama loxo bii maay tëdd moom ñoo mën a xëyam ci sama bàmmeel mais je sais que moom eggul ci stade boobu te yàlla bu mu ci egg te li ma wax waxuma ko ngir sama bakkan mais dama koy wax te ko fu leer dama ne général bi nga xam te ni moo taxoon xam nga nee naan général américain bi déglu leen bu baax général américain bi doon joxe chiffres yi moom itam naa ci ñëw non seulement général bi nga xam te ni moom moo andi woon guerre Rwanda ba génocide ba pare doon commandé troupe ñoom la waa Rwanda di giñ ba tey looloo tax sax waa Rwanda changé seen làkk yóbbu ko anglais parce que ñoom ils trouvent ça humiliant kon ne wax français alors que français ñoo andi loolu baray rey leen. kii nee na ma ay ay càppataat lañu billaay wallaay man li ma wax naan ay panafricain man wax ma affaire panafricain sama yoon ci loolu man je vous dis ay chiffres yu leer li may wax ku ko weddi dama nga gëstu nga xool yi man dama dem gëstu ma xool yi ma wóor dafay enquête woo ñu ma xam France parce que ñun ñi nga xam te ni yàgg naa koy wax ñu bëri gëmuñu ma te li ma wax mën naa ci jël témoin ay grand yu bëri fii. ñun ñi xamanteni ñuy activiste ay bari dañu am yeneen naataango ci dëkk yu bari ba bitim réew ba France ba un peu partout di jokkoo nag di waxtaan wax dëgg fa yàlla di xam lu bari di informer wu bari moo tax des fois ma def ay publication li ñaan foo ko jëlee loolu seen yoon new ci <laughs> pour que ni ñen ñu comprendre mais man fi ma ko jëlee xam naa ko mais bu ma ko defee nee naa leen un mois nit ñi buñ ko gisul ma xàcc lu ma doon man je marche comme ça xam-xam nag information gëstu kese la moo tax quand je vois ay seex yi ñuy garaaw garaawlu yor seen ko si bu ñuy wax naan way diw dina jubóo rek diw c'est des conneries am doo gis si journaliste yi traité géopolitique maam Birame Wathie kese la te c'est pas parce qu'il est bool-bool sama ganaar moo tax mais c'est la vérité c'est lui seulement mooy traité li géopolitique dama ne Afrique déglu leen ma bu baax général bi nga xamante ni waxoon na yéen africains yi da leen a war a recoloniser de force général boobu noonu CVM boo ko jëlee mooy général bi nga xam ni moo jaxase woon Rwanda yi ba xam ne ñu rayante reen bu métti ba Rwanda yi dañ doon giñ ne sax ñoom ñoo France moo créé loolu moo doxal loolu ba tax ñu changé seen làkk général boobu tamit moo doon commandé troupe yi nga xam ni Côte d'Ivoire ba nay guerre guerre ethnique di reyante seen biir ba ay sénégalais yu bëri jaaree fa woon daw bàyyi fa seen bien fa lañ général boobu la moo doon wax général boobu noonu imaginer ñëwaat na Afrique dem bene ba Patrice Talon ñëw di ko dalalaat mais quel gàcce les encore les pays de la CEDEAO lolu gatch la même général bu nu xas bu nu wax loolu ñu dalaat ko yemu ca même général américain bu yi nga xamanteni mom moy le Lecointe mooy général le Lecointe ñëw na fi mom ñom tam ban koy dal mu jaar mu jaar Afrique du Sud mu jaar comment dirais Côte d'Ivoire jaar ay beneen hôte ay Togo mais man des fois dama demandé les pays de la les les pays de la CEDEAO suñu seen seen dirigeants man ban genre doomu aadama la ban genre doomu aadama pourquoi ces gens là bañ Afrique ba pare ce sont des gens yi xamni foo leen fekk ay coup d'état constitutionnel lañ def ñoom ñoo gën a doy waar parce que ñee danoo def coup d'état populaire danoo def coup d'état mais populaire lan mooy coup d'état populaire ñoom ñoo coup d'état pare askanu topp di yuuxu d'accord ñëpp di gis ça veut dire que bu doon voté la élection ñoom ñooy gagné kon loolu légitimité la mais non président de la de la CEDEAO ñoom ay coup d'état constitutionnel def soit ñu modifier constitution soit ñu yokk mandat te ci opposant def leen neex kon ñan ñoo ci gën a am légitimité yan laay laaj ngeen tontu ma yéen ñi si yéen ñi seetaan laay laaj ngeen tontu ma motax buma bu gisee sénégalais yi nga di jéem a xas les pays de la arrêté bo xas ci day fekk nga xam ni ñu koy xasee mais maîtriser wo nga ne koy xas da ngay maîtriser d'abord abord ndax nga koy xas ba paré ñoo mën ko defal li mo moo koy xas mais boko maîtriser waroo koo xas arrêté ngeen di xas les pays de la de la de la l'AES amu leen droit nga leen di xas ñu wara a mo les pays de la CEDEAO wala wara a ñu bàyyi affaire de traite ni def parce que boobu lay affaire de traite rek la ni def té le général localité bi nga xam mo jox ssc ni ah depuis nous ñu quitté depuis Russie ñu quitté Russie ñu affaire ba légui affaire yi yokku na de 40 pourtant ñom ba muy 40 ñom avons ñu ngi woon ñu laaj 1 milliard de dollars ñu bañ ñom ñoo 37 milliards de dollars jox ko Ukraine bi nga xam ni benn pays kese la contre lu mu dee dee dee lu mat 8 pays affaire yi nga xam ne ñu ngi ci menace terrorisme guddeeg bëccëg laaj 1 milliard de dollars Nous leen ko te du may de lepp ñu bañ lepp ñu bañ. pour jënd ay armes maanaam lebewul leen ko directement seen ay arme lañ leen ko lebee ñu bañ pourtant même général boobu non nga xam am nañ surveillance partout ba paré di alamatro loolu ñom ñoo taxaw ñu wax naan ay 40 la ba paré ay Côte d'Ivoire di dalal mais quelque kon nek les pays de l'AES dañu am deug suñu kaw qu'on l'ex qu'on l'accepte ou pas dañu am deug suñu kaw te lool moy deug lool moy deug bu ko gaay di wéddi parce que ñom dañu am deug légui nak dama bëgg ñu ñu comprendre Sénégal lan pexe la ci mën a am pour changer les choses parce que nee dëkk yooyu di soutenir les de l'AES la ku ci yaakaar les de l'AES dañuy faible wala da leen di sanctionner ñu faible wala da nga leen di attaquer ñu faible da nax sa bopp parce que nee leen guerre bu nar a Afrique rek man mooma ci metti guerre bu nar am Afrique indirectement kenn ku ne di rafetaayi sa morom ndax les pays de l'AES ku leen nar a sànqañ yenn yi defante ko yow te CEDEAO jom defante yow léegi su ko defee États-Unis Arménie Russie Arménie ak les les bris Arménie OTAN Arménie ñu reyante suñu biir ñoom suñu toog ñu tok di lekk seen i banaana di ci profito kenn ko ñu ne nga profito lekk lo mën parce que boobaa kenn ko ne profito profité te pourtant la Russie lu mu bon bon bon bon la Russie ce qu'il veut c'est couper les vivres de la France en Afrique manam dañu bëgg France fa muy tibbee te waru faa tibbee mu ñu wëccax loxom ba France yëm te France bu ca yemee dé ndax nee len France yi jafe-jafe yu né kenn xamul nu mu toll te du France kese moo ci ay jafe-jafe mais États-Unis ndax tey jii États-Unis boo jël li nga xam te moo ne lu tax États-Unis ñu def la tout pour ñëw contrôler li nga fi jot am ci économie di njëkkante Afrique te Afrique a ñu koo jox te ñu ngi doon xeex ñoow leen woon sax dañu jàppoon ko ay golo mais ki nga xamante ni moom mooy Arabie Saoudite ne man sama pétrole dootuma ko jaayatee en dollar maa bañ signé tuma lu may signé États-Unis nga xam te ni dollar laa ko doon jaay yooyu bañ naa

lan la dese su ma ko mënee waxee noonu pour nit ñi mën comprendre la puissance financière maanaam le pétro le pétro dollar maanaam le dollar kese lay gérer kon su ko ñàkkee ñàkk na lépp te tey dëgg tey dama ci am dëgg lu ma ci amee dëgg non militairement ku ne xam ne la Russie dafa taxaw Chine dafa taxaw moo tax li jënteetul États-Unis fu mu leen xuree ñu gajji ko logiquement ñoom tam dañoo taxaw parce que guerre technologique li nga xam mooy guerre technologique bi dañ cee taxaw li nga xamante ni moom mooy moo tax piratage dañ koy defante comme pas possible États-Unis rek mooy reculer xam ndax yéen ngi may déggam déet États-Unis nag moo leen njëkk a jóg ñoom rattrapé nañ ko États-Unis mën naa am ay réseaux sociaux yu leen gën a populaire waaye ñoom rattrapé nañ ko de bu dee lekk espionnage ak contre espionnage dañoo rattrapé li nga xam ne mooy États-Unis moo tax dañ koy defante defante bu saf sap pour nit ñi mën ko comprendre léegi nag États-Unis lu mu dese as néew Chine dafa am lu mu ci yor muy les 30 pour cent de la du comme monnaie de référence comme monnaie bu mën jaay ak jënd ci wàllum matière première ñoo ñu ne defatuñ ko bañ ko ñoom ñu xam ne ko dëkk yooyu comme que ñu ngi koy bañ AES comme ça ak CDAO bis bu taxawé woon tay ji ñu créé li nga xam ne moom mooy ECO c'est fini pour eux loolu amu sax ci sikki sakk c'est fini pour eux ñu ne comme ko fee moom desee nam daw njëkkante fee parce que fee bu ñu furi si jiitewoo ba yàqal ñu dañuy dé bu ñu fa si jiitewoo dañuy dé té ñoom jitu nañu fi déjà ci affaire commerce kon bu nu fa jitu ci yenn militairement ban note dëkk yooyu loolu mooy seen objectif parce que nee naa leen états-unis ñu commencé am problème ci li nga xamante ni moom mooy ah gars yi may woonoon xaar please moom mooy xaar ah. dëkk yooyu noonu pour wax la dañoo am commencé am problème parce que tey ji xoolal classement yi bu leen neex ngeen fu leen neex ngeen classement yi kan mooy première puissance économique bu la Chine jëlal côté côté mbay les pays du BRICS ñoo ko mën jëlal ci wàllum ñuy kere ingénieur ak yeneen côté yeneen pays ñoo ko moom pétrole dollar kese la dese pétrole dollar dëkk yëpp ñu ngi koy daw moo tax ma ne les pays jamono ji ku suivre OTAN da ngay pour tax ñi ñoom moo tax Allemagne bi mu nee ba ci biir jamono jee bu ñu bëggoon a sanctionné tellement Russie mu ne sanction yi mun d'accord mu day daaneel sama économie ma bañ maanaam plus con que les les européens n'existent pas plus con que les européens n'existent pas dem ci Inde Inde jënd pétrole ci su ñëw ñu jëndaatee ko ñu jëndaatee ko le double pour mën a alimenter seen turbo yi pour mën a am électricité ak gaz loolu c'est être stupide maanaam ils sont égoïstes xam ne dañoo égoïstes ces gens là yoo xam sax fu ñu teg seen tànk kon nga gis ne les am ci ñun dëgg ñu bàyyi ci bu baax a baax a baax léegi nag léegi nag Sénégal dëkk yooyu noonu parce que Sénégal dafa war a exiger benn affaire ne muy AESO muy li nga xamante ne moom mooy nangam. dama bëgg ñu toog waxtaan bu nangut waxtaan benn day fekk les pays yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci li nga xamante ni ñoo nekk ci CEDEAO dañuy aspect yi yooyu dañuy accepter am sunu monnaie cent francs siège ci wala mu am da ñu produire ko en Afrique bu ko leeree ne Bassirou Diomaye Faye dëkk yooyu dañu ko accepter na teel a quitter CEDEAO li may dox lu leer laa leen wax Sénégal dafa yor ay ressources teel a yor propre monnaie ndax gis nga dama ne ñetti pays yi muy Tunisie muy Maroc muy Algérie ban amee seen fit génn si ci franc fa créé seen propre monnaie ba léegi réccuwuñ ñoo ñooñu mën ci boor yépp ndax ñoo def définir seen politique monétaire nu mu leen neexee ak nu mu leen arrangé moo tax loo ci gis ya ngay dem ni ñu ngi en arrière léegi nag bu dee euh, CEDEAO bii nangu na am éco boobu mu ñëwaat France ci bokk man je suis d'accord ñu reste dans la CEDEAO ba pare

mënoo def seen organisation militaire ak nangam nangam tan boo mu ne ci ay waxtaan la ay critère la parce que benn dëkk dina nangoo bàyyi benn pour perdre la face pour ñu léegi lu mën moo ñaar dëkk yi waxtaan ñu créé waat beneen organisation bu bees dëkk bu ci ne apporter ci li nga bëgg ci changement ñu validé loo ko ñu avancer dem ci kanam ñaar yooyu nag bu amut damay demander solennellement Bassirou Diomaye Faye mu quitter CEDEAO quitter AES nekk ñoom ay partenaire point très bas ndax partenaire yooyu Sénégal da ci gagné la nga xam ne ni kenn xamul ñu toll ndax dëkk yooyu dañuy commercialiser ak ñun parce que maam Birame waxoon na ko mooy dëgg waxaat naa ko fii man waxati naa ko maam Birame waxaat ko ma waxati ko pour que sénégalais yi ñu mën a déglu dëkk yooyu loolu ñun ñoo ci gën a am intérêt ñun ñoo leen war a ravitailler ci suñu géej gii mu dem seen géej gii dëkk yooyu sax war na leen mën a ravitailler ñun énergie parce que am nañ pétrole am nañ gaz dëkk yooyu war na leen ravitailler lu ne ci àdduna ñu jënd ko kon dëkk yooyu lu mun abaisé mukk ci àdduna di rompre li nga xamante ni mooy relation ak ñoom su prétexte que dañoo xuloo si dañoo ko ne parce que ñun suñu yoon nekku ci est ngi dégg suñu yoon nekku ci dëgg yoo noonu seen bi nii su ma nee seen yoon nekku ci mooy bu ñu demee ba nga xam ne nii neutre nañ ba xëcc suñu bopp toog fu mu toog li ñaari ñaari organisation dañoo neutre ñun gën ci ñaari organisation yëpp moom mooy la leen def on va travailler avec les deux pays signé ñoom ay ay ay accord militaire ah. en même temps signé ay partenariat ak ak libre essence bu nu neexee loolu ce dara wala boog ñu ci organisation yëpp jàpp suñu commercial parce que nous intérêt lañ ci am point mais en même temps suñ koy def parce que guerre bi nga xam ne am xam nga euh, Russie ak ses troupes yu fa ak les femmes de la Mali ak ñeneen à part du Sénégal na fay am. Américains ak les français yi tracé affaire ñoo di leen affaiblir wala di leen bombardé lu ko Sénégal a koy def contre le Sénégal le Sénégal di posté waat guerre am moo tax gis nga guerre gën naa jege ci nga xam ne les pays ay Bénin ay Côte d'Ivoire ak les pays de moom à tout moment li lay ont fait, sax mooy malheureusement Gana bi nga xam dafa xaw neutre te jamono ji xaw ci dugg moom mooy li lay wan ne loolu am na dëkk yooyu noonu dañoo commencé dàq doomu Burkina Faso yi boo xoolee fi nga xamante ni Euh, comment comment dirais-je boo xoolee li nga xamante ni moom mooy Côte d'Ivoire 55000 lan dàq te neen day gën a yokk dàq leen génn leen seen dëkk ça veut dire que kon mu ngi tàkk seen diggante boo xoolee Gana Gana itam mu ngi génne doom ndax léegi dëkk bu ci accepté di recevoir ay base xam ne ni beneen base bi nga bokkal frontière ñu ci bëggul yow li nga xam te ni nga xam ne ni jaar nañ fa ñoom dëkk bu ñu jaar rajaxe ko ba mu rajaxe jàll ba ca ba ca des te tant que ñoom dañuy continuer nag di rajaxe dëkk yi ça la arrange parce que ñom boba ñom dañuy am temps réfléchir ba paré ñoy continuer doon li nga xamanteni mom moy li nga xamanteni mom moy euh comment dirais je première puissance te kenn ci mën dara donc ngeen gis né dëkk yoy yëpp tay tay mu né la Côte d'Ivoire 55000 Burkina Faso la génn xam nga né dëkk yoy non ci kanam touti ci ay village de guerre yi di commencé ci kanam tout lay commencé motax may lé won ci quelque temps bu ñu defee guerre bu metti na am en Afrique il y a des gens yi ma gëmoon am ñoo xam gëmunu ma won comprend ngeen ndax tey jii nee naa leen tey jii euh, bokk na ci li nga xam te ni moom mooy Arabie Saoudite tamit parce que pourquoi ma leen les pays du BRICS faible fan yii weesu dafa amoon dëkk mel France dafa commencé woon <laughs> ne yoo xam naa yéen ngi may dégg dëkk mel ni France dafa commencé woon ne dafay geler les biens russes maanaam comme comme bu russe ba nga xam ne nii ñu ngi woon France ñoom dañu koy téye teg ci loxo jox ko Ukraine. xam nga Arabie Saoudite lu mu leen wax comme que man léegi BRICS laa bokk bis bu ngeen jaay bis bu ngeen jëlee li nga xamante nii moom mooy bis bu ngeen jëlee li nga xamante ni moom mooy ay koom-koomu Russie man avoir yi ma amoon maanaam les droits yi ma amoon ci France dama koy jaay te loolu bu ko ànd bu ko defoon tey Arabie Saoudite bu ko defoon crise économique bu graaw mooy am biir France bu kenn mënta natt mooy am biir France xam nga loolu bu ko defoon. crise financière bu doy waar mooy am bu France moo tax ma ne bu ngeen mën a menacé woon waa France Arabie Saoudite moo menacé waa France bu ngeen jëlee gelé les biens de la Russie man samay obligation yu ma am France ma jaay ko yooyu nag mën na koo jaay ay ennemis et sama laa doon parce que Arabie Saoudite léegi dafa bokk ci les pays du moo tax les pays du BRICS moo commencé gën a yaatu OTAN ëpp ko doole moo tax mel ne OTAN ko topp da ngay suux moo tax aujourd'hui dana war a def le tout tey ji ndax avoir yi ëpp na trois cent mille milliards de dollars si Amérique xam nga loolu du ay caaxaan parce que 300 000 milliards de dollars yooyu waa France bu ko gelé c' est parce que France dafa am problème koom-koom mais bul xam obligation ñee na la toll ndax bu ko jéemee jaay ñee buñ génnee seen obligation dina wax ñee xat moo tax France ki ne waat nang teg ko ci suuf kon kon qu'est-ce que vous voyez que les pays de BRICS dañoo commencé jàppalante seen biir dana commencé soutenir ante seen biir loolu ce qui veut dire que képp ku dof dof lu bëri da ngaa topp li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni mooy OTAN da ngay daanu parce que ku bëgg ku bañ far fos OTAN c'est nii OTAN ci guerre la mën a existé waat mais ban guerre moo tax OTAN amul fitu déclaré guerre direct ak les pays di BRICS loolu mooy secret bi OTAN bu doon moo leen mën équilibre amut barke Serigne Touba Mbacke OTAN sanctionné leen jaay préglige Chine ndax Chine am na temps da doon plié da doon agir ci kanamu États-Unis mais malheureusement malheureusement jamono ji Chine li États-Unis faaleetu leen ci benn côté loolu moom moo tax en réalité boo seetlu ñoom boo seetlu ñoom en réalité tey jii dañoo faible par rapport moo tax seen guerre yi na leen koy dañ koy guerre par ay satellites ci leen profité nag seen économie récupéré lu bari ci guerre boobu parce que guerre c'est de l'argent ci guerre boobu noonu ci leen écoulé seen armée te arme yooyu booy xool li tax tey Russie sax bokk na dëkk yi dàq jaay arme moom États-Unis ñoo koy concurrence ak France Chine commencé na concurrence leen tamit ci armement yi mu ngi leen di bëgg a rey ci armement yi ñi nga xamante ne moom mooy Russie di jaay lu jaay fenn parce que ñoom di vendent moins cher ak ay armes de qualité ñee nag ils vendent trop cher ak armes yoo xam du baax ba pare entretien bul xam dana ci facture day seer léeg-léeg ci biir guerre boobu ci la lay lebal xaalis lebal la dund lebal la lépp à partir de boo nag ci lañu commencé ñoom tekki ci lañu commencé génn mais guerre boobu noonu bu ñu ko defee pare dëkk ya ko def yéen lebaloon dañ leen di noot te comme que dëkk ya fa defoon dañ leen di noot bu fa guerre amee ñoom qu'est-ce qu'ils ont moo tax la Russie teel a approché ay partenaire am du ngeen fi guerre ba dañ leen di noot bu ngeen guerre ñu guerre leen a ñëw campé ni moom mooy li ne parce que Babacar Justin keroog mu ngi doon wax papa Babacar Justin sax laay wax mu ngi koy wax keroog ci TFM nee na bés bu ngeen xamoon li nga xam moom la France def ak États-Unis li ñu def ci pays les pays de l'islam barki Serigne Touba mu Sénégal ñooy gën a bañ France ñoo leen di gën a bañ bu nu ko defoon Serigne si sax danañ jóg ak seen ngeen baal ma ne ak seen i caay jëm xeexi danañ jóg ak seen i caay dem xeexi

dañoo yor entre 37 ak 47 pour cent li nga xam te ne mooy PIB mondial bi les pays du BRICS là yor entre 37 ak 47 pour cent PIB mondial bi loolu loolu lu taxal fokk ñu soutenir nga am doole moo tax ne les États-Unis nag comme que nag xam ne ñu ngi waaj a ñuy jafandu ci yenn yi moo tax ils ont tout fait pour bañ a yenn dëkk yi bañ a échapper pour comme pour Sénégal pour ñu comprendre ñun lan moo ci suñu intérêt que xam na ne Sénégal moom moo la Europe di pour ay industrie lan mooy industrie pour usine am koy defar ay otoom wala gaz bi toggee wala gaz parce que gaz bi leen di joxal courant daal bu leen di jox courant ndax courant ci ngay defee lépp gaz bi ngeen xam ci leen def courant parce que togg sax mën nañu ko jàppee comme courant wala lépp comprendre nga gaz boobu noonu noonu Russie moo leen ko doon jaay ak pays yi nga xam te mooy seen ennemi les pays du BRICS comprendre parce que Arabie moo leen doon jaay moo moo doon jaay Arabie Saoudite tamit moo leen jaay Amérique tamit lépp pays yooyu doon jaay danoo gis ne am na dëkk bu yor lu jeex mën leen koo jaay di si ans yi di ñëw ba deux cent ans la ñu am problème moo tax ñu daw ñëw dëkk yu jege Sénégal yëpp ñu am fa base militaire ñoo taxaw moo tax jamono ji bu ñu amul fulla teel leen génne suñu réew teel leen a génne suñu réew fulla mosu ñu am moo tax ñu ne Sénégal dafa nekk locomotive ba nga xam ne ni jamono ji mooy décider rey ku ko neex dundal ku ko neex entre guerre bi Sénégal moo ko mën a déterminer déterminer léegi vite fait bien fait motax tax Bassirou Diomaye Faye bu ne leen damay négocier na am day am parce que pays yooyu ils sont obligés de céder jox Bassirou Diomaye fay lu muy négocier parce que bëgguñu perte bëgguñu perte ñu mën a négocier ak Bassirou Diomaye Faye rek dañ koy négocier pourquoi parce que xam nañ ne askanu Bassirou Diomaye fay accepté nañ ko ils vont le soutenir à 100 pour cent mais fekkoon askanu Bassirou Diomaye Faye instant bi dañ ko contre kon ñu ko tolloon Macky Sall fomp ko day yom vite fait bien fait du sax négocier ak moom mais jamono ji ils sont obligés de négocier ak moom parce que dafa am légitimité dafa am ñu ko gëm ak population bi te nag mënoo ñëw jàpp population dem rey leen ne li ngeen def force amatul fenn ci àdduna bi ndax boo commencé président dëkk boobu noonu wala ko dirigé ba dëkk bis bu woowee Chine ne ko kan signé accord bu signé moom accord rek a complexe si ne à a ni a permettre dundaat mën a jàkkaarloo waat ak Chine mën a jàkkaarloo waat ak Russie mun a jàkkaarloo wat ak Iran mun a jàkkaarloo Pyongyang mun a jàkkaarloo yeneen pays de l'AES loolu moo tax ñu daw côté ñu si Sénégal ñu Sénégal moo tax jamono Macky Sall ambassade yeeg président yi ni leen doon baagante comme pas possible ci Sénégal ngay nekk ban décision lañ ci war a am ñun ba gañe ci ban taxawaay lañ ci war a am taxaw ci loolu nag woo naa Bassirou Diomaye Faye woon naa Sonko waaye bu tey des fois may génn ci wax sama xalaat parce que bu wax leen premier xalaat bi nga xam te ni moo war a def tur français yi moom ak américain lañ génn suñu sunu monnaie nit ñëpp xam ne dañ koy changé muy les pays pays bi ci d'accord ñun yu ànd ak moom mais monnaie bi dañ ko changé d'abord di jaay suñu ressource suñu propre monnaie nga xam ne am benn moyen de chantage nga xam ne ni ëllëg kenn nu teg affaire bi dinañ am benn moyen de pression ak moyen de chantage ba ba pare comme li ngeen def nag leen laay saluer mooy ouverture bi ngeen def parce que monnaie boobu nga xamee la Chine va l'accepter parce que Chine day ak commercialisation Russie ak ñeneen nga xam ne États-Unis day obligé gars excusez-moi maa ngi def ay crise ok 2 minutes இருக்குள்ள இல்லைக்கா

lii nga xamante ni dañ ko def solution bu baax la mooy ouverture ouvrir ouvrir ci partenaire yi nga xamante ni partenaire bu ci ne da ngeen di njëkkante léegi permettre la ñoom ñëpp ñu njëkkante mais bu ñu njëkkantee tamit lu ñu muus muus de mais investir ci luy dakk parce que loolu mooy tey Qatar moom ora ñun dañoo war a investir ci suñu sous-région bi war ci am ay investissement yu dëgër nga xam te ne géopolitiquement dañuy taxaw ci côté bépp am moyen ndax bu njëkk parce que Sénégal mo nekkoon premier capital AOF e, mo ñu ko nekk premier capital am nan ko mo nekkoon capital bu ko tam pour ma am moyen de chantage bu graw intellectuel bu bëri doon fu jugee ñu doon former médecins yu bari bari kon ñun fofu lañ war a jaar li li nga may wax li des fois wax ko des fois ko li genn contredire moo may leen alhamdulilah keroog tonton babakar juste bi genné génnee leeral ko nga xam te ne wax kenn du ko démentir te pourtant li mo wax yépp dama ko wax A ba mais man neex naa démentir de xam nga sax man ma neex a démentir parce que naan ah oui c'est un jeune dañ koy démentir lu ma neex mais grand bi kenn du ko démentir te lii ma leen di wax ni du ci dindi oq cent francs ni du ko ci dindi ah. léegi nag qu'on le veuille ou non malheureusement Sénégal traité li nga xam fi mooy situation géopolitique te loolu musiba la ci dëkk li dañ ko war a traité nit ñi di xam fan la nekk loolu musib dañ ko war a traité tout le temps moo tax daal maa ngi leen di ñaan ñëpp nañ ci bàyyi xel ah. c'est important moo tax Sénégal lii ma leen wax choix yi daf koo am ngeen bàyyi ci xel bu baax pour ëllëg Sénégal dafa war a comme que dëkk yi ba nangu te déggoo mu am monnaie boppam bu njëkk moom actuellement am na ni non négociable mooy dafa war a jël les troupes ñu génne leen suñu dëkk comme ça ñoom bu ñu am seen satellite yi reyante ñu reyante ko ta xaj parce que jihadistes yi mënuñoo tëb Mali ñëw fii parce que foofu am na benn miir am na benn miir bu taxaw bu fa nekk ku xalaat lay na ci ñaar dëkk yi ba pare dëkk bi ci ne lay orienté te benn dëkk du kenn traversé di jàll benn ndax ku la traversé danger la ci yow naka naa ne kenn nangu paaka di jaar sa biir di jàll pour jàmm ka ca des yow lay njëkk a rey kenn du ko nangu benn kon Sénégal dafa war a génn dëkk troupe yooyu da leen a war a faxas suñu réew ba mu set wécc wécc ba pare ci côté surveillance ñu signé ak Chine signé ak euh, léegi très bientôt ñu am satellite mais en même temps dañuy signé ak Chine signé ak ak États-Unis bàyyi benn dëkk pour maanaam mettre en concurrence xam kan moo ban partenaire bu fiable ngay am ëllëg ba paré fay leen lu touti parce que am ngay ressource deuxièmement sénégal dafa wara and ak pays yi créé monnaie pays bu ni lox loxoon mën fa ñu créé ak monem liggéey ak ñaari pays yépp ñaari organisation soit ñaari organisation no wara plié wu ci li nga xam ne moom la Bassirou Diomaye bëgg moy lan ñu àndandoo am suñu monem bop mo xam dañu am ñaari organisation yu wuté mo xam dañu nango wat organisé wat ben organisation mais kën ci ñoom dootu jóge ci organisation dem ci bosu moromam loolu lañ ko tek ci suuf ci 20 ans sax la la wax bu ni dajé wat di d' accordaat yeneen président ne ci ni lay démé kenn lo nga pat la face ndax boo ko perte sa population dal sa kaw ña fa nekk fee ne di gouverner képp ku ci def lu population population bi dal sa kaw population bugguñu population bi ñoo bugg delluwaat CEDEAO te dal population bi majoritaire comme Sénégal la ñu bëgg woon Sonko bañ Macky loolu moo fa nekk il faut que ñu nangul leen ko population bi ñoo bëgg xiif mar def lépp mais il faut se débarrasser des occidentaux ça moom c'est clair et kon ça veut dire que ñaar organisation yi li mën mooy am créé waat beneen organisation bu bees ñëpp retrouver wu kenn ko ci ànd ci loo créer suñu propre monnaie wala boog les pays de la CEDEAO bu nangoo créer monnaie Bassirou Diomaye na ci ànd mais en même temps ñuy bi dañuy ci ne ay charte comme ni ñu ko defee woon ay deux mandats yooyu yëpp mu leer na nga xam te ne ay coup d'état constitutionnel dootu amati Afrique nga xam ne nga am ay pays yu stable ñaar ñuy mën a wax ne bu ko dëkk yooyu yëpp nanguwul Sénégal la génn nànk nangoo liggéey ñaari dëkk yëpp ñaari organisation yëpp nangoo liggéey ñoom

c'est pour sauver cet espace bi nga xam te ne aérien ndax seen sur euh, espace aérien yooyu noonu bu ñu ko sauver dañuy bañ français yi tabal ci ay toxique maanaam ay ay ay ay ay poson seen tool yi moo tax ak ñu koy surveiller jamono yi surveillance bu doy waar dañ koy surveiller bu doy waar sax dañ koy surveiller parce que man on a des amis burkinabé bu doy waar ñoom ci autosuffisance lañ jëm te war a dàq ñoo ñu génn su dëkk mu ne fay la justice de la

kese képp dong moo ko mën a proposé moom président Ousmane Sonko ba pare bu ñu paree dëkk yëpp ñu liggéey moom mooy dëkk bi nga xam jihadiste dañ ciy pare pour liggéey ñoom rayante ak ñoom ba pare signé ay convention militaire dëkk yëpp dëkk yi nga xam ne ni ay puissance ñëpp duñ ci négocier kenn ak ay transfert de technologie ak transfert des données na ko signé ñoom loolu si capital capital gis nga loolu koom-koom bu muy andi kenn xamul lu mu toll ci àdduna boobaa dañu encouragé moo tax ma ne

li ma lay wax nii Sonko moo la ko gën a xam Diomaye moo la ko gën a xam te Sonko lu tax mu toogoon sànni këlam dey boobu jamono jooju ñoom Joe Biden ñu ngi doon soutenir ñi nga xam ne lii def te man réew mi ma am légitimité gis nga bu doon toll légitimité boobu noonu militaire yi am moo am am ko dëkkam moo tax éliminé wuñ ko billaahi Sonko bu ko amatoon ci dañ koy éliminé comme bonjour vite fait lañ koy éliminé comme bonjour mais légitimité bu am ak dëkkam ñoo xam ne leen ko perte moom la zatamintère yi am ci dëkkam moo tax ko heureusement suñu borom dimbale ko et des jeunes prêts à défier quiconque te li wax ne Sonko ordinaire de à de la barre gis nga ay François Fillon ñeneen ñëw feeg nangam nangam su ngeen <laughs> eh, man moo tax Sénégal bu ngeen amoon jot dëgg-dëgg du ñu doon topp du ñu doon toon sax opposant yi bu doon sérieusement ñun ñu ngi am xam ñu ngi commencé muus ñu am temps dëggantaan tontu maanaam dañ leen di xaw a cos mais yenn tontu yi duñ ko sax di nga xam te ni mooy opposant yi mais au contraire lan tal AES lañu tal CEDEAO lañu tal nañuy def ba àndee parce que c'est important léegi nag vidéo bi nag ku ko mën a jël partagé ko ba ñëpp jot ci partagé ko képp mu mën a jël téléchargé ko tegaat ko sa sa sa compte tegal ko ci parce que vidéo bii mooy bii nii ma leen def dama bëgg borom xam ne jot ci ngir yàlla mën a génn wax parce que je sais bu ñu waxee ni ñu leen kenn génn ñu koy encouragé muy Babacar Justin mais gis nga Sénégal situation bii nu mu toll nii du ay ay bugaas wax la ay on s'en fout de ça situation mu tolli c'est capital gis nga sunu monnaie ci la dépendre sunu sunu sunu sunu réussite ci la li xew ci sous raison bi ci la dépendre décision ni jël sous ci bisouf ci la dépendre pour ñu jaar fi développer wala ba ku lay wax ne développement à part du Sénégal lañ def point très bas moy lool ñu ngi ni sunu gaz bi la c'est à l'international convention yeeg yooyu moo côté bob lay wo sénégalais ñu gëna focaliser ci lool xam na nag à chaque fois mo wax yene boy duñ ci boy gëstu len ci lool gëstu len ñi wax ci lool lool mo ëpp solo moo tax bàyyi leen di critiquer nag AS bàyyi leen di critiquer panafricain yi parce que Sénégal mooy seen solution te ils ont raison nag di lay critiquer ils ont raison ñu wax seen affaire mais loolu ñu wax yëpp nekk danoo bañ mais xam nañ kan mooy Sonko ak capacité yu mu yor gis nga yàlla na ko yàlla may jàmm quoi moom Bassirou yàlla na yàlla may jàmm te yàlla nu yàlla may ay militaire ak ay garde yu fidèle buñ ko amul nee naa leen ba ngeen comprendre ñoom danger nañ ci moom ñu commencé jël ay décisions majeures pour changer l'Afrique barke alxuraanu karim ngeen di comprendre mais nag foofu noonu buñ ko jël yàlla moo lañ sàmmal seen bopp parce que yàlla ma lu gunge ba egsi fii du pour Sénégal de c'est pour changer l'Afrique bu ñu yemee Sénégalais yàlla nangul mu joxoon jox ko keneen li ñu yàlla may ba ñu egg si fii c'est pour changer l'Afrique yaa Afrique yaa ngi noonu jooy c'est pour changer bu bu ñu yéexee rek yàlla na ko jox ko keneen kon nag maa leen sant di leen gërëm di jégalu bu wér. ci guddeel bi mu ne guddeel tey nag di waxtaan xam naa nag d'ici un mois lañ ci waxtaanaat bu urgence amul bu situation bu doy waar amul ñu waxtaan ci ah. ñu jàppaat d'ici un mois wala di d'ici deux semaines yàlla rek moo xam ngeen ñaanal mu ñaan naa leen taw fexe barke jégalu bu baax di wax page bi nag lépp lu ngeen mën a def pour booster ko def leen ko pour booster ko parce que en réalité page moom dañ koy signaler chaque jour matin midi soir wax dëgg fa yàlla moo tax page bu bëri mënatul koo gis dañ koy signaler restel ko comme pas possible comme pas possible te man mënu ma sax ñu may publier dañ ko restreindre ndax page bi le fait que ma ci publier situation ma am Gaza le fait que ma ci publier yenn situation yi moo tax ñu koy restreindre man damay demandé des fois méta ah, yàlla na am solution sociale bopp méta daal ñuy restreindre doy na waar lool lool lool lool ngi jégalu nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jégalu bu baax a baax di leen ñaanal taw fexe barke mucc mucc yokk lépp merci beaucoup am ngeen jaaraama